salaam salaam salaam salaam asalaamaaleykum mbokki auditeur euh, page Facebook Ndella Madior Diouf di demandé tamit ñu wax Dakar ñu synchroniser jox ko téléphone bi mu woote pour que ñu démarrer synchronisation bi su wootee ba pare mu delloo la ko nga commencé jël ay photo asalaamaaleykum asalaamaaleykum mbokk Facebook Ndella Madior Diouf asalaamaaleykum mbokk YouTube NMD TV asalaamaaleykum auditeur rajo Safir FM Dakar 96.6 sa Dakar rajo bi nga xam ne ñu ngi koy déglu fépp ci Sénégal 96.6. asalaamaaleykum mbokku internet yi salaamaaleykum sama xarit yi xalaa salaamaaleykum Sénégal ñépp maa ngi leen di nuyu maa ngi ñépp di leen di fàttali émission bi nag ngeen koy déglu si YouTube di ko déglu ci Facebook di ko déglu daanaka ci réseau yu bari di leen di gërëm di leen di sant si bàyyi xel bi ngeen bàyyi xel Ndella Madior Diouf tey si dimanche 2 août ndax dama ne tey damay waxtaan ak Sénégal yépp tey damay waxtaan ak sénégalais yi am dégg-dégg ndax sénégalais yi dañu baax coow li coow li coow li sénégalais yi dañoo baax coow li coow li coow li sénégalais yi mën a àtte dëgg coow li coow li sénégalais yi dañu am yërmande coow li coow li sénégalais yi ñii dañu am bàmmeelu biir ñii amuñu bàmmeelu biir ñii mën a muñ ñii mënuñu muñ. pour ñi nga xam ne ñi ngi doog a connecté wu a xam foo leen ni connecté wu soit si rajo Safir FM Dakar 96.6 wala si page Facebook Ndella Madior Diouf wala si YouTube NMD TV maanaam Ndella Madior Diouf TV maa ngi leen di déglu maa ngi leen di maa man mii may wax ak émission bi nag tey mu ngi tudd affaire Sada Kane Ndella Madior Diouf ma leen di demander nag ngeen di partager vidéo bi na si ñépp jot moo tax tey damay jël sama temps su naree jël 24 heures na jël 24 heures soo leen tàyyiwulee rek ma tàyyi su naree jël 24 heures na jël 24 heures da waxtaan soo leen tàyyiwul du ma tàyyi ndax tey c'est le moment de parler et je vais parler émission bi c'est affaire Sada Kane Ndella Madior Diouf 27 ans après partagez leen vidéo bi maximum de partage s'il vous plaît maximum de partage s'il vous plaît Ibrahima yow mi yore partage yi dugg ci messenger ndax soo leen partagé dama koy xam maximum de partage abonnez-vous à la chaîne NMD TV sur YouTube abonnez-vous à la page Ndella Madior Diouf sur Facebook Ndella Madior Diouf ñu koy bindee N majuscule le reste minuscule Ndella DLA Madior bi M bi majuscule la le reste minuscule A D I O R Diouf bi tout est en majuscule xam nga man moom je suis la reine des réseaux sociaux donc dama bëri ay page j'ai plus de 200 pages sur les réseaux sociaux et beaucoup de comptes loolu moom sama objectif mooy avoir 1000 pages sur réseaux sociaux yi te ñu ngi si d'accord kon partagez leen abonnez leen. vraiment abonné leen abonné leen je veux des abonnements sur ma page Ndella Madior Diouf Diouf bi nag tout est en majuscule D I O U F tout majuscule foofu laa duggee fa laay defee seen émission Ibrahima maximum de partage waxal photo yi gisuma photo yi xale bi na def euh, na ma wax ko mu snap comme ni ma ko waxee woon dama jëli ko mu snap programme bi bu nekk varié dama jëli xale bi mu snap na snap su nappee pare nga dugg si partage voilà bi lañ changé programme bi dicté na programme bi yépp di fàttali émission bi c'est en direct sur les réseaux sociaux fan lañ koy defee sama rajo bu bees bi mon nouveau bébé ici à VIP Café FM à Sali ñu ngi ci kaw bisis bu Sali à côté de Rhino Resort foofu lay defee émission bi mu nekk rajo bu bees tàkk boo xam ne da ngay supprimer volume bi boo xam ne fii la ñu nekkoon juróomi at mu am ay gàllankoor en 2018 ñu sàccoon matériel bi yépp fële ci Safari la yàlla suturaal ñu jox ñu kattan jox ñu doole ba ñu mën a jëndaat lépp lu bees antenne yu bees émetteur yu bees local bu bees lépp lu bees ñu ngi fii sali à la grande surprise générale ndax loo gëm rek da nga si sax dàkk sax dàkk man lu ma gëm dama siy sax dàkk je tenais nag à faire beaucoup de précision pour commencer émission bi parce que je vais prendre mon temps aujourd'hui émission bi pour commencer ko c'est la première fois de ma vie que je prends la décision de parler de l'affaire Ndella Madior Diouf Sada Kane dama bëgg mu leer ci bopp c'est la première fois de ma vie kenn mënu wax le contraire que je prends la décision là personnelle de parler de l'affaire Ndella Madior Diouf Sada Kane 27 ans après sur ma page Facebook Ndella Madior Diouf sur ma chaîne YouTube NMD TV di leen demander ngeen abonné si au maximum partagé leen au maximum na si ñëpp jot na si ñëpp jot et sur synchronisé sur Safir FM Dakar c'est la première fois de ma vie su ma développé nit yi comprendre ko musuma wax ci Sada Kane personnellement dañ ma ci provoqué nag tuumaal ma ci ba borom yëf yi soo waxee mu ne elle passe tout son temps à parler de cette affaire dans les médias c'est archi faux c'est aujourd'hui que je parle de cette affaire c'est aujourd'hui que je parle de cette affaire sans complexe je dis bien, sans complexe. Et surtout, pour les Ibrahima, vraiment, il faut supprimer tous les volumes. Sans complexe. Et surtout pour les enfants qui sont dans cette situation, surtout pour ces femmes qui n'osent pas en parler yàlla nattuma lii mu muñ ko nangu ko xeex koo xeex xeex bi parce que xeex bi dama koy xeex xeex bi yàlla dafa ma ko nattu jox ma ko man dee la maa jooju parce que xam ne mun naa xeex xeex bi gis nga nu ma xeexee la nationalité aux enfants nés de père étranger nés à l'étranger de mère sénégalaise que seen sénégalais seen yaay sénégalaise mun leen jox nationalité ça Moïse vient t'approcher mun leen jox nationalité sama doom ji mu nekk sama deuxième doom man mënuma ko jox nationalité maintenant tu peux partir parce que c'est lui qui joue technicien mënuma ko woon jox nationalité mais dama xeex xeex bi nangu déposé caution 20 millions nekk la seule femme tête de liste élection législative 2012 personne ne m'a compris à l'époque après ils ont elles ont compris les femmes parce que j'avais donné une caution pour les femmes sénégalaises pour qu'ensemble on se batte on se batte pour défendre les intérêts des femmes ndey la major l'éternelle incomprise ki ñuy tuumal day liggéey loo nit bañ ko fay ki ñuy tuumal lu munti ñaaw si àddina ñu tuumal ko ndax parce que vraiment c'est une femme battante au fur à mesure que je parle les femmes commencent à me comprendre aujourd'hui je vais vous raconter mon histoire aujourd'hui histoire gémmiñ borom borom moo mën raconter la véritable histoire histoire bi nag maa ngi koy livre kon comme que dama si bind livre dinaa leen épargner des détails qu'on vous allez retrouver dans le livre mais aujourd'hui je vais parler au nom de toutes ces femmes qui ont enfant qui n'a pas été reconnu officiellement mais reconnu dans le cœur da ngeen wax ji les enfants qui n'ont pas été reconnus officiellement à la mairie, mais reconnus dans le cœur. Parce que, bépp nit ku jur doom mi góor walla jigéen di nga xam ne yaa ko jur waaye danga ko ruus a déclaré di nga xam ne yaa ko jur jigéen bi moom comme que moom la ñu ubbi biiram walla mooy accouché dina xam kii moo jur baay bi nag moom mun naa làqutu daw ndax rus rus jabaram rusay doomam rusay mbokkam wala ñàkk jom rek rus rek ñàkk jom rek wala décider rek ñàkk jom rek loolu moom day am ñàkk jom ñàkk jom ñàkk jom ñàkk jom ndax képp ku jur sa doom nga xam ne doom ji yaa ko jur nga daw mi ngi fépp mi ngi dans toutes les confréries religieuses mi ngi dans toutes les sociétés mi ngi au Sénégal mi ngi aux États-Unis mi ngi fépp du gàcce ndax doom alal la jarul rey jarul nëbb doom alal un bras de plus un être humain de plus dans une famille quelle joie kon maa ngi gërëm Sadakan moom mi ma may Sara quelle joie maa ngi koy gërëm bu baax ça va surprendre lu bëri pour tout le monde sant di ko gërëm spermatozoïde am moom moo rencontré ovule Ndella Madior Diouf Moutou Sarr dina ma nee na loolu nee naa leen su naree jël vingt quatre heures je prendrai tout mon temps no stress abonnez-vous à la chaine chaîne NMD TV mun ko xoolaat xoolaat parce que émission bi archive lay doon maa ngi sentir ñi nga xam ne ñu ngi jooy à distance aujourd'hui je n'ai pas pleuré sama sama ronga ñi moom nañu yàgg na je pleure plus je ris je suis la mère d'un être humain magnifique et je suis toute contente d'avoir mis au monde un mère un enfant magnifique donc je ne pas pleurer

jigéen juróom-ñeenti weer lay ëmb accoucher que de voie naturelle walla par césarienne da ngeen wax ci parce que am na ñoo xam ne mënuñoo ëmb dañoo stérile kon yàlla su la mayee nga am faculté ëmb après une fécondation dans le ménage dans le mariage hors mariage peu importe peu importe da koy nangu nga xam ne lii alal bu la yàlla jox la doo ko rey doo ko sànni da koy téye jur sànni la ñuy rey Sénégal foog ñu dugal xale yi seen bopp rapport sexuel ci ménage ci mariage day am comme ni ko islam ak religion islamique chrétienne wax il faut apprendre à chaste xaar ba dugg ci mariage doog a sëy ndax Ndella Madior Diouf seen yaay mooy wax ak yéen seen i tante ak seen mag après son expérience mon histoire elle est belle je que mon histoire elle est parce que une femme courageuse étudiante en médecine, qui a choisi de garder tout simplement son enfant. Sénégal ñëpp xam nañu fu nit di jaar mais elle a choisi de garder son enfant suite au conseil d'un gynécologue alpulaar que j'ai perdu de vue et que j'aimerais qu'il m'envoie aujourd'hui un texto s'il est toujours vivant parce qu'il m'avait dit garde cet enfant et dans dix ans plus tard tu vas me remercier j'ai oublié son nom il était à l'hôpital principal moom mënu ma fàtte peut-être na ma fàtte mënoon nga imaginer que c'est Ndella Madior Diouf parce que à l'époque je m'appelais Ndella Diouf bi après li ñu ko dugal au tribunal kooku j'aimerais bien la le rencontrer c'est un homme gynécologue xam nga lan moo jar a sur terre bu am njëriñ je vais parler en tant que coach je vais parler en tant que victime non non non dépassé naa stade boobu doom alal la ku la ko jox danga sant yàlla sax doom ku la ko jox danga sant yàlla si tu compris te dans la vie d'une personne lépp lu fu jaar rek yàlla moo ko tudd kenn mënu si dara yàlla moo newoon tey le 2 août 2020 fii si kaw bi si sali ndee la Maajoor Diouf dina fa def rajo bu bees tàkk tuddee ko VIP Café FM à Saly et fii première émission bu fi am ça parlera de l'affaire Sada Kane Ndella Madior Diouf loolu yàllaa ko tuddoon kenn mosu dara tey Sénégal yépp ñu ngi may déglu sur la bande FM 96.6 Sénégal yépp ñu ngi may déglu sur la 96.6 à Dakar Safir FM Dakar 1400 et quelques sur Facebook actuellement ñu ngi connecté wu sans compter partage YouTube bi tamit mi ngi toj. NMD TV dina di demander ngeen abonné en attendant le livre parce que lii dafay am livre je raconterai tout et il y aura pas de censure uniquement pour vous montrer que problème dañ koy song problème dañ koy song on va commencer par des clarifications je vous prouve que j'ai la suite dans les idées amul lu may fàtte on va commencer par la clarification modem baa ngi nii soo bëggee su fekkee am nga pap su fekkee am nga connection am nga connexion c'est bon sinon am nañu modem parce que fii moom dama jël samay mesures dama am free am orange maa la wax lii kam sali moom sali moom connexion bi baaxul kon da ngay def euh, double connexion dama def modem free def orange fu orange lajjee rek ma basculer si si free pour mën a def sama émission sans problème kon les les les clarifications que je vais apporter mooy c'est la première fois que je parle de l'affaire Sada Kane musta am musta am di ma tooñ lu tax ngeen may tooñ lu tax Sada Kane yow nga may tooñ lu tax nga may tooñ bàyyi di làqutu dîner, elle passe tout son temps à parler dans les réseaux sociaux. Ce n'est que des mensonges. bàyyi di ma tooñ mosuma wax affaire Sada Kane si réseaux sociaux c'est la première fois 2 août 2020 ma garde sama dignité ne pat di liggéey sama liggéey qu'est-ce qui s'est passé 2008 wala 2009 Aïssatou Diop Fall boobu mi ngi nekk journaliste su dégluwul émission bi woo leen ko mu déglu émission bi boobu mi ngi nekk journaliste wal fajiri demande ma interview ma ne ko exil bu mu demandé interview bi ma ne ko exil xalaat naa lépp lay wax lépp lay wax ba mu des affaire Sada Kane que su ma ne woon je vais parler de l'affaire Sada Kane ma ne ko waxal waxal sa waxu bàyyi ak sa waxu ndey ma répété phrase bi su ma invité woon ne ma waxal si affaire Sada Kane ma ne ko waxal si sa affaire baay ak sa affaire ndey woo leen Aïssatou Diop Fall mu déglu émission bi volume bi parce que il faut ñu def ay clarification ñu doog a commencé émission Sada Kane kii euh, Aïssatou Diop Fall daf ma daf ma daf ma demandé interview ñëw immeuble Safir 97 21 Sacré-Cœur 3 boobu maa ngi marié ak Nero ndeysaan gars yi seen question duñu sóoraale ce que mun na déstabiliser une famille xam nañ ko de mais jaral na leen sa yàq une famille da ngay ñëw ak intention de nuire gisuma émission buñ ma invité te ñëwunu ak intention de nuire dem nañ ba ne ma est que xam nga que Sénégalais yi te prennent pas au sérieux parce que man su ma su ma seetaanee seetaanaatee ay émission ma ne dañ maa yem dañ ma doon invité pour toroxal ma dañ ma doon invité pour toroxal ma man maa si doon génn rek ay soti job faal ma si doon génn rek mais da ngeen ñëwoon pour toroxal ma ndey sànn mais comme que man dama mën a tontu comme que man sama médecine bi jànguma ko pour yéen di tout dama mën a communiquer ma communiquer tontu leen tontu parce que en pleine émission mu ne yi pare que da am doom ak benn journaliste bu sant kan Comment peut-on poser ce genre de question à une femme à qui on a demandé une interview pour parler d'autre chose nga ñëw di ko wax lan nga ñëw di ko wax lan tu peux téléphone à, à Ibrahima commencer à partager donne ça à Ibrahima va partager sur Messenger après tu peux tu vas regarder ton canal tranquillement donc su ko defee Aïssatou Diop Fall ñëw ndeysaan ne may pare que da am doom ak benn doom ak benn journaliste bu sant kan ma ne ko effectivement loo leen bëgg ma tontu ko loo leen tontu ko ndax dama mii si saa si biir émission bi parce que dama ne voilà on m'a piégé on vient pour une interview sorti sortie boobu sa manqué wër réer na si archive YouTube bi réer na si archive yi parce que il faut ngeen tegaat émission boobu pour xam li ma leen di wax peut-être dans cas rapide ou bien dans xaw ma lan mun nañu retrouver archive bi j'ai besoin de ces archives wala ngeen wëram archive bi envoyé ma ko par messenger ou bien par WhatsApp 77 612 39 69 su ko defee. di xam li ma leen di wax lan la xam nga lan ko tontu keroog li ma ko tontu keroog dafa yomb dama ko ne kii ngay wax effectivement am nañu doom waaye daf ko sekkal benn famille bu gore ndax Madior Diouf nekkoon xaritam bu mu yëgee affaire bi dafa ne bàyyi leen ko avec le temps dina ressaisir wu bàyyi leen ko avec le temps dina ressaisir wu gis nga émission boobu ma ko defee ba pare nit yi dañuy ràng sama kër di ma ziar ñii di ma gis di xëm ñii di ma téléphoné di mu ngi déglu si émission bi ak dignité bi nga répondre ay suñu femme ñun ñi nga xam ne am nañu même situation ñun ñëpp ñoo ëlbatiku tam reconnaître suñu doom gis nga ñi nga xam ne dañuy ne Ndella Madior buy wax xam nga ñan lañu ñeen ñi ay hypocrite lañu ñeen ñi dañ maa sant dañ ma yéene affaire bi ñeen ñi dañoo ragal ñeen yi seen bopp dañ ko def jigéen di ragal maintenant sanction bi law ba ñëw si ñoom rek loolu rek la yàlla man naka na too antal naa ko nangu naa ko di si gërëm di si sant yàlla maa si gërëm di si sant yàlla parce que yàlla xam ne Ndella Madior Diouf elle est lu ne mën na ko encaisser on n'est pas médecin pour rien du tout ñun dañoo autopsie ay nit nit tëdd ñu ubbi ko comme ni ñu ubbee xar comme ni ñu ubbee xar jóge fa dama Laetitia à l'époque c'était Laetitia fu ñuy jaay gâteau en gâteau en face de cathédrale ndekki fu suñu ndekki yu beex baax parce que xam nañu la vie c'est un cadeau ça n'a pas de prix et il faut profiter tous les jours de la vie tous les jours il faut profiter de la vie soo defee autopsie fekk autopsie fekk ñu jël machine ubbi la boîte crânienne lekkat bi ñu génne ko teg ko fale jàkkaarloog cerveau bi pour xam lan lu tax nit ki dee jaar système bi ubbi thorax bi xool poumon yi xool kër gi xool lépp jël kër gi dagg ko comme ni ñu daggee comme ni daggee kër bi ñu dibi seet ndax am na infarctus du myocarde jël poumon yi dagg xool nga xam ne <laughs> y a un Dieu nga xam ne y a un Dieu sur terre bu sàkk ay être humain teg fi charia moom ay état yoo xam ne accepté wuñu charia charia mooy lan c'est la loi islamique ku rey ñu rey la am na leen acte yu bon yoo xam soo ko defee danga lay rey loolu charia wax mais ñëpp d'accord yu si état islamique ñooy appliqué charia ku rey ñu rey la da ngeen wax Sénégal nag loolu amu fi charia fi mais damay leen di fàttali ko ñii di wax bàyyi kook yàlla yàlla dafa am li xamal lu yàlla wax ku rey ñu rey la xool leen islaam dam leen xooli charia charia bi àtte dëgg te état yu bari ragal ko appliqué lan la wax si jur sànni lan la wax si jur sànni lan la wax si turu xol jigéen lan la wax si humilier jigéen lan la wax si violer jigéen lan la wax si toroxal jigéen lan la wax nañu wax wax ci dañ ko raay tey dinaa wax wax ñi te duma si raay maa ngi leen di sentir ñi di jooy commencé gu ma maa ngi woon si Aïssatou Diop Fall nee naa leen tey su jaree 24 heures day jar 24 heures moo ne dimanche 2 août ñu am jot may defee émission bi fii si VIP Café dóoral ma logo bi si VIP Café FM Assali double diffusion su ko defee ñu xam ne bi nga jógee si Aïssatou Diop Fall damaa toog rek RTS 2 RTS ñëw seet ma côté cour côté jardin ma ne RTS 2 RTS 2 di ma seet si man Ndella Madior Diouf man Ndella Madior Diouf bu simple bii lu xew côté cour côté jardin man egsi leen boobu maman Dieye ndeysaan fraîchement divorcée de Pape Diop ñëw Pape Diop ex maire de Dakar mu ñëw moom ak Mohamed Kordou Cissé je pense que c'est ça son nom tamit Ibaadu nee nañu dañuy bëgg xam nga man dama mën a def émission man su ma décidé émission rek su ma décidé def émision rek <laughs> nga xam ne décidé naa def émission li tey woon naa leen ko def décidé naa ñaata nit ñoo deux mille quatre-vingt-quinze personnes ñooy ñoo connecté wu si seen ma page seulement sans waxuma nag yeneen page ñu partagé parce que tey damaa décidé def émission. tey dama décidé def émission yeneen dama doon foon yi rek tey dama décidé daf émission tey dama xeex xeex bi damay xeex xeex bi ma tàmbalee bii mooy épisode zéro ñëw ko ma un bi épisode zéro test la tere réalité lañ koy def faut que ça serve de leçon il faut sama dund day day day utile day am njëriñ day utile lu ma ko si àddina kon maman Dieye bu mu ñëwee fekk si ma ne dañu dañuy bëgg a def côté cour côté jardin ma leen excellé RTS 2D télévision d'État su ñëwee ma leen excellé ndax promotion la si man xalaat naa lépp ba mu des ñu may waxee affaire Sada Kane dans côté cour côté jardin laay xalaat naa lépp kon bàyyi leen di tooñ dee la maa jot duf ne moo nekk si réseau yi di wax journaliste dañu dénkumpa dañ lay piéger soo bëggee poser question wax rek dama je veux que tu parles de cette affaire ma ne la d'accord wala je suis pas d'accord mais buy xaar ba ma accordé le interview ba pare nga ñëw rek saraxal benn question en direct yore même yore montage bi nag nar daf def ñu la neexee da ngeen wax bi ngeen def émission côté cour côté jardin bi ngeen def émission côté cour am man de ndox laa amul xaw ma kan moo ma mën a may ndox parce que ñun boutique boutique dafa dafa sori. maa ngi si toxu bu bees yónnil ma kii mu may ma ndox bu veux boire de l'eau pas du ndoxu robinet je suis obligée de prendre des dani te lii dafa am suukar toxu bu bees laa def toxu bu bees oh là là naan nañu ndox yëpp mu jeex gaa yaa ngi dem utali ma ndox pas bon du sucre waaye yokk sama suukar donc côté cour côté jardin bi ñu ñëwee ba ma dalal leen équipe RTS ñoom ñëpp ñu ñëw dugg ils ont parlé de ma vie parce que ma vie euh, macha allah sama sama dund man macha allah je me suis battue ba nekk Ndella Madior Diouf dama ko xeex langaamu ma sama pap dama valoriser sama pap valoriser sama yaay ju ma fay. moo tax keroog jooju ba ma déggee ñuy saaga ju ma fay dans les réseaux sociaux parce que je n'ai pas de commentaire dama tombé si benn saaga rek moo waral ma jël woo Fatoumata Danso loolu moo indi sama jubóog Fatoumata Danso parce que damaa dégg ñu saaga sama yaay ma ne ma fay kenn ko saaga man je n'ai su ma liiree commentaire dof dof bi may tuumal dof de du ñu roo dof de du jël du jël du jël kër bu mel nii dafa rajo ñëw leen sànni di ngeen ma fi gis ma ne non nga si kaw def sama live kii di wax ak yéen doful de su ma dofoon nag yàlla eh, fekkoon damaa dof yàlla eh, mais dof feebar la dañ koy fekk surtout du gàcce gis naa li ngeen di wax la première dame su nekkee dëgg et eh, alors elle va se su nekkee tuumal c'est de la pure su nekkee dëgg soigne c'est tout quel est problème. toute maladie yi on soigne toutes les formes de maladie bàyyi leen soxor Sénégal bàyyi leen di soxor c'est tout sincère ce que je suis en train de dire feebar bu munti nekk du gàcce kii di wax ak yéen nag dofu a jàpp jekk ba bëgg a dee nag jàkkaarloo ko yéen nag am la suite dans les idées nag da ngeen wax kon côté cour côté jardin maman Dieye ak Kodou Mohamed Cissé bi nga ñëwee ma dalal leen sama bureau. xalaat naa lépp ba ñu may wax ay affaire Sada bu fekk man xam nga xeex au début lay métti mais à la da ngay dem ba fàtte ni kii parce que man franchement man fàtte woon naa Sada fàtte woon naa Sada Sada Kane naa ko jënd Sada boo gis dañ koy yërëm naa jënd cash Sada Kane moom ak këram bu mu nekk foofu ñëpp mën naa leen jënd cash saraxe ko cash saraxe ko. kon kooku dama ko fàtte man maa ngi si leneen quand je dis je veux être la présidente de la République du Sénégal en 2029 remplacer Macky bi nga xam ne am na droit présenté en 2024 daf dama ko gëm soo amee ñoo xam ne d'accord nañ si xeeru su fekkee amul dëkk je m'en fous écoute moi j'ai été éduquée dans la liberté je suis candidate en 2029 point barre ku si d'accord baax na ku si d'accord je m'en Cette Ndella-là, elle est libre dans sa tête. Cette Ndella-là, elle est autonome dans sa tête. Cette Ndella-là, koy bàyyi rek jëw yëpp dégg naa ko kenn xamul fu mu féetee mi ngi si opposition wala mi ngi si mouvement présidentiel bi je m'en fous je suis de la mouvance présidentielle soo leen ko bëggee baax na soo leen ko bëggulee baax na ba keroog jooju Macky Sall si boppam waxal ma eh laisse-moi tout tranquille bu boobaa ma jël sama yoon. et pour l'instant comme que Macky Sall waxuma laisse-moi tout tranquille je suis de la mouvance présidentielle qu'il pleuve qu'il neige ba mu ne ma bàyyi ma tout tranquille dégg nga wax bii ma wax nag xam na am na ñu bëri ñu mu naqari je m'en fous moi je suis libre autonome dans tous les secteurs xam nga ku toog jàkkaarloo ko yéen nii xam na kii nekk dans sa tête il est autonome jaaro sa solo taluma ko jaaro sa solo parce que dama ko dul tal man liggéey rek lay def dégg ngeen wax ci contre Mohamed Cissé ak maman Dieye maman Dieye elle est innocente elle est tellement gentille elle est tellement gentille elle a commencé l'émission bu ma commencé émission bi koddu Mohamed j ñëw di ko wax ci nopp bi di ko jox question yi ci nopp bi ndeysaan koddu Mohamed Dieye a manipulé maman Dieye maman Dieye xamu sa que Sada Kane sama moo jur sama doom maman Dieye xamu sa que j'ai jamais été la femme de Sada si biir émission bi la doog a réaliser question yi koy souffler à l'oreille après ndeysaan daf ko mujj sa am kersa parce que à la fin la doog a émission bi ñu tourné qu'en deux étapes marche nag macha allah doloo yaa ngi fële si beneen si dressing bi indi ma verre ndax merci merci. donc Koddu Mohamed wax Maman Dieye ci nopp posé ko ci saadakam posé ko ci saadakam mais comment peut-on incrusté dans la vie privée des gens pourquoi pour les balaa ngeen kontaan ngeen dugg ci vie privée jàmm maa ngi doog a wax tey ci affaire Sada Kane volontairement journalistes yi da ngeen dénkumpote da ngeen soxor ndax pour am buzz da ngeen di bëgg a dugg ci vie privée nit yi yéen journaliste lay waxal da ngeen soxor da ngeen di dugg ci vie privée nit yi volontairement pour ko yàq pour am ay vues sur internet bàyyi leen nit ki dafa ko c'est ma vie c'est ma vie tey laa doog a jël décision parler de l'affaire Sada Kandela Madior Diouf tey yeneen yëpp dañ may nax ba dugg sama bureau poser ay question rax si rek commencer waaw il paraît il paraît il paraît il paraît ah mais mu tontu la. ba àddina di tukku dama ñàkk fay na ku ma question dinaa la tontu gentiment dinaa seet ni mën a mën a tontoo gentiment et c'est ce qui s'est passé donc je réponds bàyyi leen di ma tooñ je passe pas ma vie na bi gaawaay je passe pas ma vie à parler je passe pas ma vie à parler de Sada Kane aw ma jot bi aw ma temps bi ku ko wax danga may tuumaal ku ko wax danga may tuumaal rapidement le verre je vais vous wax de ku si wax danga may tuumal maman Dieng daf na émission bi côté cour quatre jardin ba pare dama leen si NMD TV di nga ko fa fekk si YouTube posé affaire Sadakan ma tontu ko tontu ba rafet rek man ka amul problème dinañ jubóo tontu yooyu laa tontu après Sara. a pris la décision de faire un témoignage, de lancer un clin d'œil à son père qui a été insensible, parce que Sadakan n'a pas de cœur. Parce que Sadakan n'a pas de cœur. Tu as lavé Parce que Sadakan n'a pas de cœur. bi nga yàkkamte nee naa ne su dara ay 24 heures dinañ ko doon mu daal que je boive de merci donne-moi encore de l'eau je parle beaucoup il faut que je boive de l'eau je parle beaucoup il faut que je boive de l'eau il fait chaud ici on n'a pas encore climatisé la salle l'installation rajo dafa métti voilà c'est bon mais ça remplit ça et je continue donc su ko defee ma fille a fait son témoignage nu mu gën a rafetee fekkewu ma fa ma tam je bàyyi ko ñu dem mu tourner toute seule émission bu rafet pourtant à la fin mais ki doon posé question comme que dañ ko souffler à l'oreille avec le recul si la doog a xam nga xew parce que dafa ko ne woon que man mii jàmmu Sada Kane laa woon après la doog a xam que j'ai jamais été l'épouse de Sada Kane jamais on est sortis trois mois ensemble c'est tout yàlla daf li gën Abonnez-vous à la chaîne NMD TV e clochez sur la cloche de notre notification. Abonnez-vous à la page Ndella Madior Diouf, Diouf bi c'est tout en majuscule. Et écoutez la radio Safir FM Dakar 96.6 parce qu'actuellement ñu ngi en direct ci Dakar ak li ko wër. ñu ngeen di déglu Ndella Madior Diouf pour ñu ma xamul may wax tey ci affaire Ndella Madior Diouf Sada Kane 27 ans après. kii di wax ak yéen elle est kii di wax ak yéen elle préféré prendre la parole pour ces femmes qui ont honte de parler ces femmes qui souffrent en silence personne ne peut fermer ma bouche à part Dieu personne ndax li may wax dama ko teg si lu wóor yàlla jàllale ko si man teg ma nattu bi étaler ma sama vie privée damay xeex xeex bi su ma doon étaler sama vie privée tàmbale woon naa ko yàgg na musuma kaw wax ay dénkumpa ñoo ñëw à part côté cour côté jardin parce que maa ngi si clarification yi ba léegi à part côté cour côté jardin am na benn site en ligne fàtte naa site en ligne bi qui est parler encore de Sada Kane dans une interview qui n'avait rien à voir avec ma leen kooku dafa may daw comme la peste te pourtant yaayam sama loxo yii lu mujjee te muy dëgg wax boobu nag naqari leen je les comprends parce que j'étais seule à gérer cette situation ndamoo ma si j'ai eu privilège amawan j'ai eu ce privilège nañ ma ko nangul parce que j'étais seule dans cette situation nañ ma ko nangul nañ ma ko nangul de nañ ma ko nangul suñuy jaale man dañ may jaale dama bokk suñuy jaale parce que maa am chance bi dund ak Ama Wane avant muy gaañ foo leen nekkoon foo leen nekkoon kan moo jël frais yi foo leen nekkoon Sada Kane dañ la woo yow sa yaay mi ngi feebar mi ngi sukuraat nga ne doo bouger mètre sa sœur ma nga fa foo la nekkoon ngeen may ko après foo la nekkoon kan moo joxe télécentre yi pour tàgg yi kan moo toppatoo fin bi de koñ bi fees na dell ko oto mais wéetoon naa ak moom foo la nekkoon hmm, c'est pas une histoire de famille je ne parle de la vérité lu ma dund Ama Wane ak a baax yàlla na ko yàlla yërëm yàlla na ko yàlla j'ai eu la chance de la gérer j'ai eu la chance de la gérer su fekkee dafa mu naqari yéen j'ai eu la chance de la gérer ndax maa et j'ai supporté tous les frais fa la amu leen droit branché maître ak di wax quoi que ce soit parce que j'ai été seul avec Amawan ba mu gaañu fa la nekkoon déggoon naa kiriku daf ma doon daf kiriku yam na doomu xoma kan la encore si biir daf ma doon critiquer xoma la lan tu fermes ta bouche là le petit hein ndax je t'ai pas vu toi sa bu muy gaañ gisuma ko man rek la gisoon man Ndella Madior loolu sama titre la on avance ne laa leen man ki si frotte si picc mu am beneen journal Sen TV aw ma benn noonu Sen TV ñoom ñëpp de Bougane à si suuf ñoo ñëpp sama xarit lañu mais l' émission Rétro Buzz di ngeen def saara tegu leen ko fenn Sarah était venue parler d'une voyante euh, euh, qui s'appelle euh, Yaay Fall bu ñuul qui était tout le temps ivre et que j'ai décidé de chasser de la radio mu fay rajo bi Sarah dóor ko c'est ça l'histoire ñiy defar ongle benn ongle gi bu nekk en face de chez moi la maison familiale à Sacré-Cœur 3 filmé scène bi jàllale ko TikTok mu law si àddina bi ñu ne que kooku bon la boo xam ne dañ ko amel 6 mois d'arriéré de salaire gis ngeen tuumal yooyu ñuy tuumal dossier bi mi ngi tribunal baax dina tukki duma ko baax Sara porté na plainte mais xale la xamoon ni ñuy suivre dossier judiciaire dinaa si dugg sama loxo baax dina di tukki cette personne qui a fait ça bi day dal koom ak maa mën a muñ gis ngeen ni mu mënee muñ saadakan 27 ans après Sada Kanté mosu leen confirmer que taxaw naa buntu këram 27 ans après mos mën a am loolu ak du am parce que ça c'est Bandeera Madior ak ma am dignité xanaa du ma du ma jigéen bu mën a muñ am sama classe bopp man je courrai jamais derrière qui que ce soit ak a muñ góor laaj leen góor yi ñu ma mës a jege damaa mën a muñ góor góor tuuti lu ma muñ naa Sada Kanté 27 ans jéem ma ko sa séen. jéemu ma ko sa seen man duma topp góor mukk si àddina da ngeen wax ci kon rétro buzz je pense c'est rétro buzz comme 100 pour cent buzz pour cent Nafi Dieye moo koy joué moo ko kii ak benn góor bu pataani laa comme ay s'appelle encore damay fàttu bi big xaw ma naka la tudd big xaw ma naka la tudd donc su ko defee gis naa ñu bari ñu ko bëgg a interview dans WhatsApp mais na ngi def ndànk rek. C'est mon récit, c'est mon histoire. C'est mon histoire. Je raconte mon histoire. su ma demee ba giif dinaa jël appel silence dans la salle c'est mon histoire kon Reto 100% Buzz invité Sara pour parler de Yaay Fall bu ñuul appelé Bijou Yaay Fall nekk gisaane woon ci Safina FM ay at yi at dem naa ba héberger ko sama propre néeg rien que pour jàppale ko ndax nekk ci cocaïne yeeg drogue yeeg yu karkam ak tux yàmba ma ne balaa muy dee overdose xaaral ma récupéré ko sama propre appartement mu bàyyi naan te dama ci am ndam bi ma rëccee ak jëkkëram son mari handicapé mu ko nangoo ci man rëcc mu yàquwaat duggaat si drogue bi duggaat si lépp ma ma gedd ma ne ba arrêté naa affaire ma teral ko financièrement comme que dañ may seen ak xaalis bu bëri ils sont gourmandes elles veulent encore elles veulent encore elles loolu moo waral coow dañ may seen ak dañ may seen ak xaalis loo leen jox du ñu doyal ñu lay teg bët loo jox duñu doyal soo leen jox un milliard duñu leen remercier mu buggaat xaalis ma bañ ak docteur Sémou Diouf mu buggaat xaalis ma bañ ma ne j'ai dépensé quatre cent et quelques mille francs en l'espace d'un mois et demi si yaay Fall stop moo war a yaay Fall saalit di ma saaga si buntu rajo bi ndeysaan Sarah, elle sera digne, elle toujours digne, elle sera toujours digne dans sa vie, c'est la fille de sa mère et de son que Parce que parfois, il y a un côté de gueule, Sadaka rek la ko mën a jëlee. Donc, mu dem dóor Yaay Fall parce que Yaay Fall dafa fay sama rajo mu dóor ko onglerie bi soxor nekk en face nekk ay dëkkandoo au lieu ñu ñu filmer di jàllale après di fen Hongrie bi ñu fa nekk ñépp ay fenkat lañu maa ko wax doo leen ruus dangeen ñàkk jom dangeen soxo dam leen uti liggéey beneen liggéey moo gën ngeen di yër ongle jigéen ñi uti leen liggéey ongle yi bàyyi leen kook jigéen ñi ñàkk jom maa ko wax ku nekk ak ni ngay xeexee dangeen ñàkk jom dangeen ngeen ñàkk jom onglerie d'en face da ngeen ñàkk jom yeneen yore seen portable ku génn ngeen filmer photo ñeen tamit def leen noonu rek ngeen xaar seen plainte ndax plainte bi dossier bi mi ngi tribunal xeex bi day mat gis nga man kii si flotte si pic et je prends mon temps kii si flotte si pic baa dina di tukki li ngeen di def sama buntu kër Ndella Madior Diouf di photo ku dugg génn ngeen photo photo seen loolu dugg di topp di koy def di ngeen koy def seen ndey ak seen baay di ngeen ko def seen ndey ak seen baay seen gàncax yi seen rakk yi te di bàyyi Ndella Madior Diouf tranquille engrais en face yéen laay waxal. kon 100 pour 100 buzz mënoon yem rek si loolu Sarah ñëw toog ak a jekk macha allah la de sa mère et de son père ndax ku ko gis xam ne kii ama wan mooy maamam. ñu mu naqar yi gaaw leen ubbi kàmb yi ngeen gas dugal seen bopp suul seen bopp balaa ñu leen di sulli ñu mu naqar yi gas leen kàmb ngeen suul seen bopp balaa ñu ñëw sulli leen kon naka ngeen di mu ne am benn invité qui parle d'un problème professionnel ngeen bëgg a dugg sur sa vie privée di ko naan waaw on n'entend jamais on t'entend jamais parler de ton père Nafi Dieye est-ce laaj naa la sa papa kan mooy sa baay kan mooy sa yaay laaj nañ la ko keneen ki xaw a nu mu tudd big xaw ma naka laa maa ko tuddee monsieur Pata monsieur Pata pouf kuy sa baay monsieur Pata kuy sa ndey est-ce que mos nañ la ko laaj j'ai envie de dire imbécile j'ai envie de dire imbécile mais je vais pas le dire kuy sa baay kii si frotte si bic mais heureusement que Moïse Sarah a une bonne éducation tontu leen tontu bu rafet ne man sama papa ñaari yoon rek laa ko gis mais j'adore mon tontu leen tontu bu civilisé ak am classe dès la maa jur doom yu mel noonu rek lay jubbi ñoom classe ñu dul saaga ñuy tontu man dama bëgg sama doom fier sama doom exposé wu sama vie privée yéen journaliste yi yéen a dénkum pa soxor ministère rambaaj maa ko wax ku jege ma mbeg la jege ma mbég la ku ma bëgg affronter jege ma ma mbég la boobu di ngeen xam ne nee la maa jot du ngeen ama affaire maa ne da ngeen fumiste da ngeen rambaj da ngeen soxob ñàkk jom maa ko wax ku mu naqari jàkkaarloo ak man nga fekk sama fii VIP café maa ngi fii Saly fii laa dëkk léegi ñu on se on rend on se rend compte des comptes yow su fekkee dangaa bëgg am bës rek dama uti feneen looy uti si Ndella Madior Diouf looy uti si doomam Sada Kane mi ngi dëkk sa Jules Natal il vit seul il ferme sa maison forcer la porte et aller l'interviewer pourquoi venir chez moi di demander si affaire Sada Kane est un mythe si yéen mystère la si yéen mais crever l'abcès aller le voir directement pourquoi de contourner di ñëw si man je vis pas avec Sada Kane j'ai jamais vécu avec Sada Kane pourquoi poser des questions toujours pour xam Sadakan Esclave jaar si Ndella Madior Diouf arrêté maa ngi doog wax si affaire u Sadakan volontairement comme que da dénk ko vous voulez mal beneen bi ma naroon fàtte may les pro Sonko juboo naa ak Fatoumata Danso parce que dama dégg mu saaga sama yaay ma woo ko ma ne lu tax ngay saaga sama yaay mu dégg sama baat xam ne baat bi lu baax rek moo fay jóge que soxor nekkul ci tonalité baat bi seetal na ñuy yëndu fii ñu dégager parce que baat yi dama koy dégg si si su fekkee defuñu dara amul problème su ko defee ñu juboo nekk benn bi ñu jubooyee nekk benn mu nekk ku baax mais pro Sonko yi bi ñu attaque attaqué quand j'ai dit que Ndeye Ousmane Sonko n'a pas le droit de dire que damay dem tëddi nelaw seetaan parce que loolu moo doon histoire bi ma ne ko amuloo droit ne da dem tëddi nelaw seetaan danga war a sensibiliser toute ta communauté parce que da nga bëri militant les gens n'ont pas compris ñu commencé di ma attaqué c'était ça l'histoire malentendu bi levé nañ ko levé nañu malentendu bi et la vie continue mais si xeex bi avant que je dise que j'ai déposé les armes si commentaire yi dañ ma doon saboté di wax Sada Kane Sada Kane Sada Kane mais c'est quoi si j'ai un enfant avec Sada Kane alors Sada du nit Sada nit la comme ñëpp góor la comme ñëpp pourquoi soulever cette pan de l'histoire que j'avais oublié de ma tête moi j'avais oublié Sada Kane pro Sonko ko soulever fàtte woon naa Sada damaa fàtte Sada ba fàtte affronter problème bi ndax problème bi bu ma ko affronté au tribunal en quinze 95 96 ba ñu yóbbu doom ji tribunal mooy tribunal bi bu nekk après Dantec le juge madame Badiane doon ñu àtte quelques années après douleur bu ma doon sentir dafa se parce que le temps efface les douleurs le temps efface les douleurs da ngeen wax ji le temps efface les douleurs mais pro Sonko yi ndeysaan problème bi ma ne cette fois si il faut régler le problème parce que problème bi l'autre prend de l'âge ma fille grandit je pran de l'âge il est grand temps de régler le problème comme que famille bi des deux côtés dañu ne zëmb zëmbaaram ku su nekk di xaar moroomam def la premier pas ñuy seetaan histoire bi Maadoot Diouf dafa nekk koo xam ne famille yam dañ ko waroon jàppale si problème bi ndax ku ñu tooñ sa doom da ngay jóg dama régler problème yi mbajum kanam borom moo koy fegal boppam mais sama papa dafa calme dafa calme ba mu ëpp déjà gëmu ko woon mais à la fin gëm na ko ba moom si boppam moo jël doom di yóbbu ko tribunal Parce qu'à un certain moment donné, Sadakat a voulu faire passer, a voulu faire croire à tout le monde que je ne m'entendais pas mon père. Mon père a donné Major. Si je ne m'entendais pas avec mon père, je n'allais jamais mettre son nom dans mon prénom. man ak sama pap juboo la nii ku si géem a dugg yaa siy des Madior sa fille préférée sa ndee la ndee la ñëpp xam nañ ko même su fekkee am na juróomi doom ñëpp xam nañu loolu même su fekkee am na juróomi doom du ko wax mais ñëpp xam nañ ko je suis kon ku kon doomam da koy métti mais du genre ñoo xam ne dañ koy manifester dégg ngeen wax ji kon clarification yooyu laa bëggoon apporter Sada Kane qui passe tout son sa sa vie à dire que Ndella Madior part dans les réseau sociaux ah étaler sa vie privée dans les réseau sociaux moo tax du ma reconnaître xale bi daf may tooñ j'ai jamais parlé de Sada dans les réseaux sociaux personnellement j'ai répondu à des attaques de journalistes à des attaques volontaires de journalistes parce que parfois tu es obligé de répondre tu es de réagir et c'est ce que j'ai fait kon bu leen ma tooñ bu ñeen ñi suñ ko déggee dañuy reetaan mais dafa nekk loo xam ne dafa sax sama biir xol lu tax ngeen di tooñ dee la maajoor bi nga xam ne dafa leen dara dafa leen dara man dafa ma leen dara xam nga lan moo xew ñeen ñi dañoo iñaane dee la maajoor cette femme qui s'est faite toute seule cette mère célibataire parce que moi je ma suis mariée tardivement en 2009 d'accord 2008 ou 2009 j'ai même oublié la date Je me suis mariée tardivement. Entre ma fi et mon fils, il y a 17 ans d'écart. 17 ans d'écart. kon ngeen xam ne mag ak maa mën a muñ góor dama ko mën a muñ d'accord tous mes enfants je les ai eus par césarienne parce que yàquma sama bopp amul benn góor fii Sénégal ku mën a glorifier wu mais yaakaar naa Ndella Madior kii lu ma neex naa koy amee amul ku ko wax fen nga ku ko wax fen nga dégg ngeen wax ji daf may neex dafa may neex ma donte góor su ma nakkaree doo ma laal doo ma jege doo ma laal doo ma jege musuma ñàkk fayda musuma yomb dégg wax ji musuma ñàkk fayda musuma yomb te du musa ku ko wax day fen ku ko wax day fen pour glorifier wu parce que nit ñi dañuy wax Ndella Madior lii Ndella Madior lii pour glorifier wu mais ku ko wax fen nga ku ko wax fen nga ak maa mën a muñ góor dama mën muñ góor doo leen musa compter dix quinze cent mille personnes ñu ne ah Ndella Madior de ah mus am te du mus am fan la ñuy gisee Ndella Madior kay la wax fan la ñuy ba gis Ndella Madior elle est inaccessible pourtant on en a vu hein gis nañu ñuy làmbatul ascenseur ci dinaa leen suturaal du ma wax seen tur gis naa ñuy làmbatu ci ascenseur nekk léegi dans le gouvernement gis naa ñuy jéem a nit ci seen bureau nekk ci gouvernement bi gis naa lu nekk jigéen yi ñoo sonn dinañ leen jéem a làmbatu dinañ jéem a coucher ñoom dinañ leen chantage même pour gis président de la république di leen jéem a tëddee di leen leen jéem a chantage lu ne gis nañ ko fii Sénégal jigéen ñi suñu waxee àddina bi tukki suñu waxee àddina bi tukki de ba la ñuy wax loolu chantage bu nekk gis nañ ko fii Sénégal dinaa créer benn page bu tudd femme victime de hommes su ma paree live bi rek créer page bi on va recevoir des des plaintes de femmes qui n'osent pas en parler ils vont parler sous l'anonymat ñun dinañ ko jottali daf benn recueil parce que ce combat yàlla moo ma ko nattu c'est pas seulement un combat de refus de paternité c'est un combat de viol c'est un de violence physique de violence psychologique nattu bi ñuy teg jigéen ñi yépp di leen di jéem a toroxal di leen jéem a noot Ndella Madior mooy taxaw si kanam ku defam sans complexe parce que si biir àddina bi dafay am nit yoo xam ne yàlla moo leen di nattu loolu ñoo xam ne ñii yàlla moo leen di nattu lool pour ñu xeex xeex bi man fii ci Sénégal maay xeex xeex bi pour toute l'Afrique entière parce que natt bu ma ko yàlla natt dafa moom sens pour ma sagal lu tax mu nattu ko feneen lay waxee feneen lay waxee façon pression bu nekk jot naa ko démb tey buy wax buy wax buy wax xam nga lu tax ngeen ragal parce que ñi may wax buy wax ñoom tamit di nga am même problème bi te ñemewuñu wax te bañ bañ ku leen daan comme ni ñu nar a daan Sada Kane ndax Sada Kane dañ koy daan Sada Kane dañ koy daan jël bu set benn werante xeex bi nag li ma toog duré na 27 ans te damay daan man dinaa daan Sada Kane dinaa ko dóor jël bu set wecc bu amul benn werante te duma dugg këram du ma dugg ba buntu këram comme nu ko nit yi di defee Sada ma ñëw si Sada Kane yaa bon. yow pression bu ma recevoir yëpp nit yi dañuy yow tu es une comme ni ngay seenee si télé bi foog ne ndeysaan kii dafa yaru kii du sëgg yi xool nit mais Sada Kane yow yaa ñàkk jom yaa ñàkk jom yow da ngay biiral say jànk yi Sada Kane da nga ñàkk jom da ngay biiral doom yi dudd ñuroog yow am na suñu ma jël sama rajo ñuy liggéey ak man suñu duggee sama nekk damay tiit day mel ni Sada Kane moo moo dugg sët yi sax dañu ñëw ak yow Astou Kane je vous raconte pas des histoires elles sont je vous raconte pas des histoires vingt lii dafa daw yaram jànk boo am tëddee nga ko biiral ko sànni ko. Elles sont partout comme des lamadio. Il faut bien que quelqu'un parle. Il faut bien que quelqu'une d'entre toutes ces femmes parle. yàlla mën na ko na tondee la maa juuf yaa bon tu pas de cœur toi Sarah wax bu rafet bu mu sagal nii si seen TV ça n'a rien du tout nga camper sur ta position émissaires yi yëpp lan ngay wax Elle passe sa vie à raconter dans les réseaux sociaux. Et alors Si c'était vrai, c'est même pas vrai, c'est faux. C'est la première fois que j'en parle. C'est la première fois que j'en parle. Je peux en parler fii ba 24 heures épisode par épisode livre bi day mu pare du ma wàññi virgule tout ce qui s'est passé dinañ ka joxe ñépp lire ko pour l'histoire commentaire yi bu leen man je ne lis commentaire lu leen neex bind leen ku ma tooñ baaga ku ma tooñ baal naa la ku ma tooñ baal naa la ak yàlla te sama baal ak yàlla billaahi ku ma tooñ te waruloo ma tooñ da ngay faatu Ndella Madior Diouf ku ko tooñ te waruloo ko tooñ dangay ngay faatu ku ko mu neex nag ku jël risque bi nag dafal expérience bi dangay faatu walla nga dof man Ndella Madior Diouf man man saltige bu jigéen bii nga xam ne may tuura suñu famille man ku ma tooñ da ngay faatu wala nga dof kii si frot si bi tooñu ma kenn dama bañ ba commentaire si boppam du ma ko suñu lire ndax sooy lire commentaire yi da ngay gis les gens sont aigris mais am na ñu baax a baax a baax Mariam wan lii dinaa la woo wala di nga ma woo parce que Mariam lii dafa ne naturellement dina intervenir parce que cette bataille c'est pas la bataille de Ndella Madior Diouf cette bataille c'est une bataille de toutes les femmes dinaa woo Mariam wala lii wala dina ma woo dans 30 minutes 45 minutes mais dans une heure de temps parce qu'on va temps xeex bi dañ koy xeex xeex bi dañ koy xeex de kon Sada xam leen Sada Kane Gibraltar bi mu dëkk nekk fu dul biiral xale yi biiral ay jànkam yi xeex bi nañ koy xeex au nom de tes bonnes que tu as engrossées comme des poubelles je vais parler en leur nom dina am góor ñu bari ñu ma mere parce que am na góor ñu bëri loolu la ñuy def Sénégal dañuy biiral seen jànq yi biiral seen gel yi daw bañ ko reconnaître foo leen ko teg man Ndella Madior Diouf je porterai sa combat sans complexe namu ma dara ku ma gis xam ne namu ma dara maa ngi sama kër di fi fay lu cher te am naa yeneen kër yoo xam ne maa ko sam sama bopp namu ma dara xeex bi yàlla moo ma ko nattu pour ma xeex xeex bi fii ak au niveau de l'Assemblée nationale su ma juumulee nit su defee test de paternité dama nee su ma juumulee parce que su ma juumulee affaire dafa yàgg man pro Sonko yi ñoo ko sulli sinon man lii fàtte woon naa ko dem naa ba su ma xoolee Saara kan Saara du ma xalaat sa Saara vraiment j'avais oublié cette histoire vraiment je vis avec ma fille mais qu'en la regardant je ne voyais plus son père parce qu'avec 27 ans on finit par par oublier et la douleur s'estompe vraiment Mais quand même, il faut régler à un certain moment donné ce problème. C'est ce qu'on est en train de faire. Quand on fait un test de paternité, la loi sénégalaise favorise les hommes. La loi sénégalaise favorise les hommes. Après, de voir si le test est concluant, l'homme n'a pas le droit de donner son nom, mais a l'obligation de nourrir l'enfant. Si je parce que j'ai posé la question à deux avocats qui étaient incapables de me répondre à mes questions. D'accord La loi sénégalaise, d'après le juge Madame Bagan en 1994, peut-être il y a des changements entre-temps, si les tests d'ADN s'avèrent concluants, l'homme peut ne pas donner son nom, mais a l'obligation de nourrir l'enfant. À l'époque, ce qu'on m'a faisait quoi Entre-temps, sur le de la famille, s'il y a changement ou pas, dans la semaine, les, les avocats vont nous éclairer. S'il n'y a pas de changement, et si ce que je dis est vrai, à l'Assemblée nationale, on doit modifier cette loi et dire en cas de refus de paternité, si les tests d'ADN s'avèrent concluants, l'homme doit donne le nom, son nom de famille à l'enfant, s'occupe de l'enfant et l'enfant a tous les droits loolu dañu war a xeex xeex bi nous les femmes loolu dañu war a xeex xeex bi nous les femmes pour lutter contre les infanticides pour lutter contre les dépressions des femmes victimes d'hommes pour lutter contre les violences psychologiques les violences physiques pour lutter tout simplement contre toute injustice faite aux femmes contre toute violence faite aux femmes xeex bi dañ koy xeex je porterai le combat et je ne serai pas seule dans ce combat depuis hier je reçois des félicitations depuis hier je reçois des personnes qui me demandent de ne pas porter le combat face à des personnes qui me demandent de porter le combat Et là, Ousseynou ne m'appelle pas, je suis en live, certainement il veut venir me voir. su fekkee yaa ngi may déglu dangay ñëw directement rajo bi ñëpp xam nañ fu mu nekk. Farba à Dakar appel Ousseynou bu ma woo maa ngi live su fekkee daf ñu bëgg a rendre mu woo carrément ibrahim mu ubbil ko bunt bi jeex na mais su ma wooyee day déstabiliser sama live. su ko defee xeex bi dañ koy xeex te xeex bu ma xeex dem si am ndam de man dee la maa jot Juuf xeex bu ma xeex dem si am ndam surtout su ma décidé xeex ko te bii dama décidé xeex ko Sada Kane am nga problème Sada Kane yaa ngi doog am problème xam nga da nga maa mos a ragal man yaa ngi doog am problème ndax xeex bi dama koy xeex te dama si am ndam te li ma lay conseillé rek mooy sedd la bu mu sedd guy li la war daf ko jàmm na ñooy te du du wàññi virgule de si sama bataille parce que y a des autres képp koo xam ne am nga doom ak Sada Kane mu koy bañ a reconnaître sama numéro téléphone c'est 77 612 39 69 commencé ngeen réagir si sama WhatsApp. ba mm, ma leen di invité fii sama kër ñu toog waxtaan dama leen di jàppale si xeex bi dangeen ngeen bëri ndeysaan ñenn ñi dof nañu ñenn ñi feebar nañu ñenn ñi AVC nañu ñenn ñi dee nañu ndax gàcce ñi fi des ñi fi des tàllal naa leen sama loxo ñi fi des tàllal naa leen sama loxo te ngeen jël seen seen ragal bi ngeen sànni ko sa xaj sa xaj laa wax affronter problème problème dañ koy affronter ngeen ñëw jàkkaarloo ak man on va régler ce problème général comme ça plus jamais ça bépp góor maa xam ñëw bëri fii Sénégal bépp góor boo xam ne biiral nga parce que terme yooyu la ñu utiliser am na ñu ne biiral am ñu ne tooñ doomu jàmbur jigéen. ñëwal si man ñu xeex xeex bi dañuy xeex xeex bi régler problème bi correctement ba xam ne dootul musti am maa leen gën a xam ne xeex bi may xeex ñu bari dañ ma si découragé ndax dañu nekk ci situation boobu bugg jigéen yi di continuer di noppi bakkan yàlla santaane wu leen loolu na religieux yi wax na religieux yi wax religieux yi suñu waxee da ngeen képp ku ko def dañ la war a rey loolu la charia wax na religieux yi wax képp ku ko def dañ la war a rey man dee la maajoor aw ma gàcce aw ma rusukaay am naa sutura waaye soo damee ba war a xeex-xeex bi muy law di law di law ba saada kan biiral ay doomu jaamur yu bëri jànku yu bari gel yu bëri biiral leen sànni leen si mbedd bi ba ngeen leen reconnaître mu nekk wax bu bon boo xam ne tout le monde n'est pas comme Ndella Madior ndax man namu ma dara xeex naa xeex bi te Sada Kane taxul ma mel ni ma mel de dafa ma si fekk si bu ma amee 19 ans laa ne man dama bëgg nekk président de la République Sénégal tôt ou bi ma amee 19 ans laa ne je veux créer une ville entre Mboolé et saint tuddee ko côte ouest bi ma amee 19 ans laa xam man sama sens vie naka lay doon dégg ngeen wax. am sama bac en 1986 dem faculté de médecine de Dakar université Cheikh Anta Diop de Dakar musuma redoublé musta am année blanche bi nga xam ne ñëpp redoublé woon moom kese mais musuma redoublé musta euh, am bi ma nekkee quatrième année de médecine nekk stage hôpital Aristide Le Dantec moom benn xale bu gaañu ba saagañu si la décidé de créer SOS Santé bu ma créé SOS Santé il fallait faire la promotion de SOS Santé bu ma defee promotion SOS fa laa xamee Sada Kane bi ma doon seen suñu kër tous les mardis mu ñëw si kër gi ak maa nekk conseil de son émission Regard boobu awma ko moom benn relation c'est quand j'ai créé SOS Santé bu ma créé SOS Santé fallait faire la promotion de tout un produit comme dama damay def promotion wu VIP café radio parce que je ferai la je ferai le tour de toutes les télévisions je ferai le tour de toute la presse écrite ak presse radio pour faire la promotion de cette nouvelle radio radio bu am Sénégal muy communautaire muy privé dinaa fa teg sama temps pour faire la promotion de cette radio da ngeen wax bi noonu laa defee woon nag le tour de toute la presse des artistes naa noonu laa xamante Coumba Gawlo noonu laa xamante Youssou Ndour xamante Demba Dia noonu laa xamante Pape Niang noonu laa xamante Ismaël Lô noonu laa xamante tous les artistes parce que moi quelque part je suis artiste te am na solo leen di surprise bu ma leen di génne ndax dañuy génne benn album boo xam ne dañuy sensibiliser sur la santé di ko def ak artistes yi dégg ngeen wax ci comme ci cadre promotion SOS santé boobu laa xam ne ba mu invité ma dans son journal 13 heures de la RTS j'étais l'invité un samedi du journal télévisé archive yooyu peut-être RTS mun na ma ko jox parce que man je l'ai dans des cassettes bon avec les séries de déménagement gars yi sooy toxu dañuy yàq sa bagage quoi donc peut-être à la RTS je peux retrouver les archives kon kon si condition yooyu laa xamee Sadaka si condition yooyu la ma jàppale sama premier don de sang que j'ai eu à faire en 1992 1992 laa commencé def des dons de sang di liggéey ak centre national de transfusion sanguine te Sadaka a été mon premier soutien mettre ma rapport ak Isam Amaïs indi ma ay gâteau boisson collation parce que soo mayee deret da nga war a lekk seen sensation transfusion sanguine indi sang vigile également ñu dóor ko mu daanu fan lañ ko defoon centre culturel Blaise Senghor kon don de sang ndeela loolu rek la xam si organisation don de sang laa xamee Sada Kane li Ousmane ko di def mu nekk nii vingt vingt huit ans après vingt huit ans après il y a vingt huit ans vingt huit ans J'organisais des dons de sang avec les artistes. Papnian était venu, Dembadia était venu. artistes yu bëri ñëw ndeysaan am ñoo xam ne wóoluwuñu joxe seen deret dañu préféré woon soutenir tout simplement symboliquement mais joxewuñu seen deret mais si condition yooyu li nga xamante bi nga xamante si condition yooyu dinaa leen privé du détail le détail sera dans le livre le détail sera dans le livre Mais finalement, on s'est aimé durant trois mois mu may fekk ci campus universitaire bu nekk Fass dans le local la le bureau de l'actuel maire de Fass foofu c'était ma chambre que m'avait prêté un collègue un promotionnel la war a wax sax étudiant médecine comment il s'appelle encore Ahmed Tidiane Diop, que je cherche. Je sais qu'Ahmed Tidiane Diop, si tu es toujours vivant, tu es quelque part aux États-Unis. On s'est une fois parlé en 2003. Vraiment, j'aimerais bien te revoir. Mu nekk sama xarit boo xam ne dafa baax ñoo doon bokk groupe xam man dama fidèle comme ñëpp ñuy nekk sama groupe damay damay entretenir de bonnes relations ak ñoom dañuy xaritoo le docteur Ahmed Tidiane Diop j'ai vraiment envie de te revoir parce que moo ma hébergé woon avec mes tortues avec mes affiches, avec mes télés. m'a transformé chambre en paradis, quoi. Avec des tortues, parce que moi, je vis tout le temps avec des tortues. J'ai tout le temps des tortues dans ma chambre. D'ailleurs, tortues yi nekk fee dinañ toxu si ñëw fi tortues yi nekk Dakar toxu si nekk Saly fàtte woon naa leen toxal naa bagage yëpp fàtte tortues yi si toilette yi. qu'on m'amène mes tortues parce que faut qu'il mange des salades donc su ko defee waa Dakar Ami Mbacké bi nekk Dakar. jëlal salaat nga joxal ma ko tortu yi ak tuuti ceeb ceebu américain bu nekk si nit bi su ko defee si condition yooyu li nga xamante ba li am am li am am du mu amee ma résumé leen ko mu daw médecin bi nga xam ne laa dem dafi échographie bi moom moo ma ne xale bi dañ koy gàddee étudiant médecine nga su sama xam naa su la neexee avorté mais kii danga ma koy gàddal ah bon kii lan lay wax nii moom mii devant cette responsabilité yaa ngi maa yaa ngi partagé messenger mm-hmm. devant cette responsabilité vraiment devant cette responsabilité ma ne garaaw loolu laa gàddee sama doom te ak ba tey bu ma nekk nii musuma kaa rëccu am xale bu baax mu daw ne lan lay nettali sa papa Sada Kane su fekkee Madior Diouf moo tax nga ragal Madior Diouf moo la gën a gore yow doo rus Madior bi dafa sa émission regard problème bi bu mu amee sax tu as voulu me mettre en mal avec ma famille invité Madior Diouf ci sa émission encore regard mu mu accepté ko xam nga lan la wax comme que invité na ma encore xaar ma dem xam naa suñu paree dina ñëw seet si doomam maa jox loolu la wax moom ak Amadou Ly Amadou Ly wax nag yow ba sonn récemment sama pap bu muy def bu muy def ñu koy waxatee encore livre bi laa bu muy génne livre bi dédicace livre bi tu n'as même pas mis les pieds osé mettre les pieds ci cérémonie de dédicace de de Madior Diouf qui a tout pour toi yaa ñàkk jom Sada Kane yaa ñàkk jom. Sada Kane soo amoon jom nga teral Madior Diouf il a tout fait pour toi Madior Diouf a perdu sa am femme ñëwuloo ko jaale ji kon yaa dëgër ñu doon def médiation yëpp dee ci sa famille dee nañu quelques personnes ñoo ci des nga dëgër rek moo tax tey may def live bii di wax ak yow di wax ak justice su Sénégal justice Sénégal xam nga li mën nañ ko régler à huis clos tribunal parce que 1995 ou 94 bi ñu demee tribunal c'était à huis clos ak madame Badiane pourtant mënoon nañ ko def publiquement j'ai choisi aujourd'hui de le faire publiquement pour m'adresser à la justice sénégalaise sama version ñu dégg ko parler sans tabou ñu ma ko nangul am ñu ma ko nangulul am ñu ma ko à tort foo leen nekkoon durant ces vingt sept ans ma famille la famille de Sada Kane foo leen nekkoon durant ces vingt sept ans xam problème bi ne pat da ngeen ma ko yéene foo leen nekkoon xam ngeen que Madior mënul régler problème bi ndax Bour Sine la dañ ko tooñ Sada Kane mooy sukk jébbalu ñëw Jérôme Diouf mus na ma côtoyer ne ma Sada de dafa ne dafay ñëw baalu si àq Sada dafay ñëw baalu si àq jour tabaski jour tabaski bu jot Madior Diouf mi ngi lay xaar ñu gëmloo ko loolu dëgg la am du dëgg yàlla rek a xam finalement mu ne ma c'est un i la peur d'affronter la réalité ndeysaan ki ngeen di gis muy def émission ci 2STV ngeen fooga ne dafa saint nu la day biir lay jànkam di jur di sànni di biir jigéen ñi ku ko gëm ku ko gëmul témoignage à visage découvert ou non découvert dina am ci à suivre ndax ñoom dañuy ñëw da xam xale yi ñoo xamante léegi xale yi ñoo xamante léegi di damalante ndax ñoom ñëpp dangay woon ndax yàlla loolu dala koy nattu soo juree doom ba bañ ko yàlla dalay nattu xale bi day ñëw indi sa photo sa copie conforme xale yi dañoo ñuul kukk ba seen signe yi ñuul seen signe dafa ñuul kukk suñu xeesee rek dañoo diw seen yaram sama sa Sara léegi dafa xees parce que moom mooy mooy leeral kanamam ba dañoo kukk daa ñuul ba làmmiñ bi ñuul làmmiñ bi si boppam dafa am tepp tepp yu ñuul mooy ñuulu tukkuleer yi waaw daa ñuul da ngeen wax xees suy am man maa gën a xees sama doom man sama yaram yépp dafa xees sama kanam extérieur yi ñoom ñoo lakk ndax je m'occupe pas de moi léegi sa lay def effort di occuper sama yaram parce que j'ai du mélange de portugais dans mon sang gis naa benn internet laa doon saboté affaire bi su ma amoon mélange métis sama doom du weex taal sama yaay dafa weex taal sama maam weex taal ndax dañu am mélange portugais suñu famille moo tax suñu juree doom ak tubaab day weex taal gis naa kenn ku ma si doon saboté loolu ngeen di saboté mais c'est la réalité parce que da di choco ba di choco si loolu ça Moïse viens voir montre-le viens allez viens toi tu n'as pas de complexe nous n'a pas de complexe Il y a 3000 personnes qui te regardent aujourd'hui. Viens, c'est à comprendre, fais le tour. y, a, y a des gens qui pensent qu'ils ne savaient pas que j'avais un client. Donc, mon fils est là. Les autres métis sont marrons. Qui l'a parce que j'ai moi-même du sang dans mon sang. T'es l'autre du titre. Tu peux partir. L'autre du titre. c'est une réalité kon waru nañ ko utiliser nañ way Ndella Madior nee na dafa am métis portugais fom balan ci deretam wakkekkkkkk wekkkkk kon foofu ngeen di toon na yéen roki joox bi jur sama yaay daa weexoon taal karaw yi nooy nepp gudd ba si suuf roki joox mooy magu duudu joox ñépp xam leen Tataguine ñépp xam leen Diouroup ñépp xam leen Fatick ñu sokke ko Joal Fadiouth ñooy wax epa eh da ngeen wax ji ñoom ñooy wax eh, ay man je suis de Joal Fadiouth di sama maam da ngeen wax di du ma ko tiitaroo Awa Marie Coll Seck di sama mag nit day xam fu nga sokkee koo Buur Siin di sama maam sama côté pap sama côté yaay Sàmmoon Fay mooy sama maam Senghor nekkoon président de la république premier président de la république Sénégal nekk sama maam direct loolu du tiital c'est une réalité ñun waa Joal lañu suufu Joal sama maam mii moo reyoon lion bi doon terrorisé ba fii ba Saly man su ma nekkee Saly sama kër laa nekk ndax sama maam moo xàll yoon bi rey euh, lion bi doon teer taxoon kenn lu fi dëkk sama maam moo ko kon dama nekk sama place fii si Saly duma gan man duma gan Joal duma gan Pointe Sarène duma gan ñanin duma gan ba Touba Jalaaw gaynde bu leen doon terroriser dam leen laaj Khady Diène bi ne Joal mu raconte leen toute l'histoire du ma gan Petite Côte maa moom Petite Côte maa ku nekk da war a xam fa nga sokkee ko nit bu nekk da war a xam sa maam sa aabu généalogique da nga koy xam soo gisee may xeex pour Sarah Sarah n'est pas Néro et ne sera jamais Néro Sarah kan Et ça, c'est l'histoire, c'est la justice sénégalaise qui me doit ça. À travers ça de Khan qui va régler ce problème, mort ou vivant. Mort ou vivant. ñaanoo ma la yàlla mais yàlla su la reyoon ma sulli la test d'ADN bi dañ koy def yàlla su la reyoon sa dinaa la sulli yàlla su la reyoon billaahi dinaa la sulli comme ni ñu def Yves Montand ndax test d'ADN bi dañ koy def mort ou vivant xeex day mat xeex xeex day mat xeex yaa ngi doog am affaire nag ak gaynde <laughs> yaa ngi doog am affaire ak gaynde xeex bi xeex la de te dama koy xeex te billaay bi nga di nga xeex la man dinañ ko bëre dinañ ko xeex huissier dina ñëw sa kër jox la sa convocation manu militari tu vas sortir ton sang manu militari et le test d'ADN se fera maanu militaire yi loolu làqutu làqutu làqutu duma taxaw bukk ba àddina di tukki sa buntu kër musuma taxaw sa buntu kër pour pour vilipender la comme yeneen doom yi ñu la vilipender mus am mais huissier moo fay taxaw indi la sa convocation parce que test d'ADN dinañ ko def cette bataille était sera internationale France 24 Radio France Internationale tout les radios et télévisions bi monde laa wax CNN. Cette bataille sera internationale pour les femmes dootu leen biiral ci doomu jàmbur di daw munta ne munta ne yàlla su ma nattoo problème bii dafa xam ne man mun naa ko régler te dinaa ko régler yow yaay kan saada kan ba kenn xam dara sa famille bi nga amee un an la sa yaay bàyyi dina nga ne bi nga amee un an lañ la abandonné sa papa ak sa yaay divorcé sa yaay sa papa moo la jur moo la moo la moo la moo la moo la toppatoo fële si Medina di loolu nga wax loolu dafay justifier doom boo am sànni ko tànn ñooy reconnaître ak ñoo du reconnaître yaay kan Sada laay waxal yow laay waxal yaay kan yaay kan ba di sànni yaay kan ba di biiral say jànq di jur sànni ñoo ñemew ñu wax ndax amuñu doole dee la maajoon nag moo am doole pour wax ak yow faalew docteur moo am doole pour wax yow am ses outils de communication nar a régler tous les problèmes des enfants non reconnus dans ce pays sans complexe sama doom Saara amul benn complexe leena la may wax soo ñëwoon di fay scolarité amat amat sa doom fare cour Sainte Marie moom moo doon fay scolarité boppam te danga ko doon romb mu lay gis ngay fay scolarité amat amat dangay tànn ñu ngay reconnaître ak ñu nga du reconnaître nga man amal affaire ñoo la ëpp xaalis ñoo la ëpp xaalis fuuf ñoo la ëpp kër fuuf ëpp la outil de communication te faalewuñ la waaye sa li nga war a régler da nga koy régler force y aura une bataille de communication loola neex na nga wax waaye sa deret dinañ ko jël moo ko vivant bi laax sooy juum juum ba di dee avant dinañ la sulli sooy juum ba di dee avant dinaa la sulli test d'ADN bi par force dinañ ko def ça va servir de leçon à tous les hommes li may wax nii dina choquer des gens dina choquer des gens parce que dañuy tiit parce que dañu ne ah man tamit jur naa sànni de mbaa dañ ma def képp ko fi jur sànni te nga man di je vais sa ce combat dee dinaa la sulli ñu def teg dadee ni képp fi jur doom ba ba dem tëdd cimetière dinañ la sulli def test dadee parce que lii dafa yomb trop Ndella Madior va va porter ce combat daf ko benn ONG on vous allez apprendre à respecter les enfants dañu war a am en certificat de naissance déclaré par leur propre père États-Unis doom boo fi jur yow yaa koy déclaré sa bopp yow en tant que femme mais fii Sénégal benn jigéen amul droit déclarer à moins que nga déclaré sa doom daf ko su tur mais góor gi mooy war a indi sa pièce d'identité déclaré foo leen ko teg foo leen ko teg jigéen dafa war a déclaré doomam ce combat on va le combattre à l'Assemblée nationale lii moo tax infanticide yi yokku lii moo tax le taux de de déclaration des enfants du du du parce que da ngeen nekk si àll yi di biiral doomu jàmbur yi di bañ a reconnaître doomu jàmbur yi foo leen ko teg fenn tegu leen ko fenn soxee aurez Ndella Madior Diouf en face de vous sans complexe aw si benn complexe ragalu ma si kenn et je porterai ce combat waaw am na koo xam ne euh, Félix Ibrahima. xam naa ne standard baa ngi exposé maa def expert ko muyee pour ñu bañ a dégg sonori yi waaye kii war a dugg jox ma ko kii war a dugg jox ma ko avertir leen Ibrahima su ko defee ñu continuer waxtaan bi ndox bi ñëw na ndox bi ñëw na ndox bi ñëw verre bi na ñëw ndox bi ñëw pourquoi le verre s'est déplacé ver yaa ngi fi am pagaille donc su ko defee maa ngi leen di gërëm dina leen di sant ndax gis ngeen on est à 3210 sur cette cette euh, page sans compter vues yu nekk si yeneen page yeneen page yu synchronisé YouTube bi c'est la première fois que mu exposé nii 523 personnes sont en train de regarder sur YouTube donc waxal moom ba pare en hors su paree nga jox ma ko donc su ko defee waxtaan bi vraiment ñu tàmbale ko képp ku bëgg a intervenir. mën nga woo si 77 par WhatsApp 612 39 69 dinaa la jël si njëkk ak teraanga ku fi débordé dinaa la coupé ku fi débordé dinaa la coupé il est elle est prête daf lay yëfu professionnel donc ku pare ngeen jox ma ñu ñu enchaîner. affaire yi foog ñu boole si naan ndax mun naa wax ni mu leen ko waxee rek mun naa dem fii ba suba. su ma décidé def émission kenn mënu maa téye xeex bi dañ koy xeex di leen demander ngeen partager vidéo bi partager leen vidéo bi au maximum nous on des sans complexe nous on est des sans tabou nous on parle au nom des femmes qui n'osent pas parler moi j'ose parler et j'ai décidé de porter le combat pour les femmes du Sénégal Abonnez-vous à la chaîne NMD, N comme Della, M comme Major, D comme Diouf, TV TV, sous, sur YouTube. Abonnez-vous à la chaîne Della Major Diouf sur YouTube. Abonnez-vous à la page Della Major Diouf. D'accord? Écoutez la, le, ce qu'on est en train de faire sur Safir FM Dakar 96.6 au nom des femmes. au nom des enfants qui n'ont pas été reconnus par leur père et qui n'ont pas été qui ont été reconnus képp ku fi jur sànni soo tëddee nelaw di nga xam ne du doom ji yaa ko gis yaa ko jur da ñëg rek. salaamaaleykum maa ngi wax ak euh, sama maman ndeysaan di wax ak sama maman Mariam Wan li nekk la première femme qui a créé un parti politique euh, qui actuellement au Canada. et qui se bat pour la promotion féminine partout en Afrique tous des partis euh, pare na donc du euh, ñu def lu jox ko kàddu bi mu nuyoo ak Sénégal yëpp en tant que femme politique doog na ko wax ci wax ji maa ngi lay nuyu maman. ñu ngi lay déglu. pour que ngi dégg ñu ngi lay dégg waaw. da ngay téléphone bi rek pour baat bi baat bi fort jegeel téléphone bi jegeel téléphone bi comme ça sa baat fort jegeel téléphone bi. waaw. waaw. wala jox ko sa wala moo ñu ko këyit ndax rek. yàlla wax na ci nit jërëjëf lay gërëm di la sant bu baax maa ngi lay gërëm ngay sant di la sant bu baax a baax a baax a baax standard bi moom mi ngi exposé ñu bëri ñu ngi bëgg a intervenir donc ñu ngi lay jaajëfal bu baax parce que toi tu es yow yaa ñu xalal yoon bi yaay première femme bi créé parti politique fii si Sénégal moo yow yaa tax ñu ñeme keroog ji bu mu lay dégg RFM bi nga créé Parena di def sa interview RFM je faisais partie des auditeurs qui étaient à l'écoute après yooyu yaa ma inspiré ba ma créer réconciliation nationale pour les africaines tu es une belle maman une gentille maman qui se qui est toujours à côté de nous ndeysaan maa ngi lay gërëm di la sant di la gërëm di la sant di di la di la di gërëm daal di la gërëm parce que da nga nekk à côté de nous si combat bi voilà merci maman merci maman ñu ngi lay gërëm di la sant vraiment ça nous merci maman donc le standard expose kon li ñu def rek lu dul euh, bàyyi la nga noppalu ko bu baax fële ci Canada on a décalé de heures xam naa yaa ngi doog a merci merci. voilà donc c' était Mariam Walli moom nee na day xeex xeex bi à côté de nous chargé leen ko balaa muy fay day xeex day euh, xeex xeex yi à côté de nous kon mu nekk loo xam ne dafa am solo lii rek dafa neex ngay xeex xeex bi les femmes africaines jóg. di ne Ndella ñu ngi lay gërëm di la sant ci ni nga accepté def témoignage bi à visage découvert ndax c'est pas facile c'est un sujet très sensible c'est pas facile mais ce n'est plus sensible pour moi je suis désolée je suis pas sensible j'ai même appris à tolérer Sada Kane baal naa ko ak baal naa ko ndax li ma may nii may ma doom ju baax baal naa ko ak waaye li ko war da koy def li ko war si yeneen doom yi te mu jur leen da def. li jigéen góor ñu nekk ci même situation yëpp dañ koy def pour xale yi ñu déclarer leen xale yi ñu dem école sans problème xale yi ñu siggi te du gàcce c'est un petit problème ki faut régler c'est tout et la vie continue c'est petit problème qu'il faut régler et la man continue man 27 ans taxawuma si buntu saaga kan 27 ans saagoo ma ko 27 ans topp ma si ginnaaw pourtant ñu may invité 2STV su xamee que damay ñëw plateau 2STV day daw mbëkkan nañ mbëkkante nañ fa deux fois day ne bonjour après mu daw man may liggéey sama liggéey je suis pas du tout traumatisée je vis ma life je vis ma life tranquillement je vis ma life xale yi di màgg tranquillement mais dafa am problème yoo xam ne il faut ñu régler ko te dañ koy régler et cette bataille coûte cher pour les gens qui me critiquent c'est ça mon histoire c'est une histoire d'une femme d'une mère célibataire bu am jom quand j'étais cinquième année de médecine parce que quatrième année de médecine de la créé sur la santé quand j'ai été en cinquième année de médecine j'ai croisé sur mon chemin un homme qui s'appelle Sadaka yàlla def lu mu def bu mu defee lu mu def gynécologue bii ne ma tu vas garder cet ma ne su ma ko gardee du ma ñàkk jom maa jox juf ak juma fay du ma leen sonnal ci prise en charge ak sama bourse faisant fonction d'interne ak xaalis bu ndaw bu ma Sud FM doon jox ci laa doon jëndal sama doom ay yawut ci laa doon jëlal sama doom yëre ci laa doon jëlal sama doom ay saabu ruus naa laaj ju ma fay ak maa jor Diouf saabu ruus naa leen laaj dara pour toppatoo sama doom man maa toppatoo sama doom man maa fayal sama doom scolarité man maa yóbbu sama doom Croix-Rouge Roosevelt fële derrière assemblée ko ko man maa yóbbu sama doom cour Sainte Marie de Anne fayal ko ko yàlla su leen après yóbbu ko ISM ba fu mu nekk nii ma dénk ko rajo Dakar Safi FM Dakar féete woo bu sali pour toppatoo sama doom plus tard moo tax bi ma demee ba xeeb lu ma Sud FM di jox ma créé sama rajo bopp Ousmane Ngom ministre de la santé joxe instruction pour ñu may jàppale maa joor Diouf si boppam di ma yóbbu ci otom boobu mi ngi député à l'Assemblée nationale di ma yóbbu Dantec centre hospitalo universitaire Dantec man ma nekk étudiante en médecine pour ma def samay stage matinaux à Dantec day ñëw jësiwaat ma 13h 15h pour yóbbu ma 13h la may jësi pour yóbbu ma ma defi samay cours à la faculté de médecine kon kii di wax ak yéen bu leen ko tooñ kii di wax gi yéen dafa gàdd di ñuy téem famille am yépp jàppale ko moom la ko war mu ñafe kii di wax ak yéen moo ne du ma ko duma ko sedd sama papa ak sama yaay damay ñefe liggéey toppatoo sama doom gis nga kii di wax ak yéen bu mu décidé taal santéesam wéet si studio yi il fallait que ma yóbbu Saara mu jàngi cour Sainte Marita Anne xam nga nu ma doon def boobu rajo cassette moo nekkoon si rajo yi damay teg rajo cassette su ma tegee rajo ak cassette xam nga il nga gaaw dam dellu si waat parce que am na rajo cassette yoo xam ne du déclenché rewind bi le temps que ma yóbbu Saara cour Sainte Marita Anne dellu si li di set liberté si extension damay ñëw fekk rajo bi fay kii di wax ak yéen moo installé boppam avec quelque techniciens la rajo kii di wax ak yéen était mère célibataire ñefeel boppam taal santé FM taal IFPPM institut de formation des paramédico communicateurs de en santé kii di wax ak yéen moo jàppale Diop ISEC pour mu démarrer kii di wax ak yéen moo jàppale Ndiouga Sakho en 1998 kon bu leen ko tooñ bu leen ko tooy si seen sagaru wax yi day liggéey loo nit bañ ko fay alors ko ki ñëw dina dafay liggéey dafa ñëw pour jàng ci war a fay di wax ak yéen ak am jom kii di wax ak yéen bu leen ko tooñ kii di wax ak yéen ak am jom nekkoon mère célibataire mariée en 2008. toppatoo doomam toute seule yar ko yar boo gis sama doom ji mu waxee ka seen TV kat dem nga xam ne kii yar nañ ko kii na mu dal te dañ ko yar da ngeen wax bi kon kii di wax yéen bàyyi leen di ko tooñ Sada nag yow soo amoon jom affaire bi si fii yow yaay kan ba kenn du la wax dëgg yow kenn du la wax dëgg sa kër voilà un homme boo xam ne amul kenn ku ko ñemee si famille à commencer par sa propre mère koo wax mu ne kii de moom kenn ñëwaw ko dóor bi nga dóor une fois soxna RTS c'est ça ta véritable nature colérique colérique kii di wax ak ak am jom kii di wax ak yéen moom croisé chemin Sada Kane chargé leen téléphone yi wàññi kii di wax ak ki di wax ak yéen soo leen bëggee communiquer man de bind leen ngeen bind ki di wax ak yéen kenn du ko fontoo kenn du ko fontoo kenn que dafa diñ ku ma xamul rek moo may critiquer man dee la maa jot da ngeen bëgg wax ak man da wax ba doyal tey di ngeen wax ba doyal si respect ku fi manqué respect dama lay coupé ndax dama am sama fulla ndax maa leen gën a xam ne wax bi may wax nii am na ñu bëri ñoo xam ne da leen naqari am na ay jàmbaar ak nit yu baax yoo xam ne daleen neex parce que dafa am ñu bëri ñemewuñu wax. problème bi am na États-Unis am na Europe am na dans tous les continent du monde mais toujours dina am kenn ku porter ko combat ndox ndox ndox ndox. dina am toujours kenn ko porter le combat tu mets le verre à côté rek je pourrais me merci donc dina am kenn koo xam ne dina porter le combat correctement pour que lii bañati am Sada Kane dama ne woon bés bu bés bu ma décidé jóg dinaa la muñal nag mais muñal naa la 27 ans kenn du ne oh elle est à sa vie ban vie privée non je règle le problème. Je n'étale pas ma vie privée, je règle problème. Et c'est pas seulement mon problème. Voilà. am na koo xam ne dafa am doom ak saadakan saadakan daw ko dafa bëgg a en direct bëgguma saa mu waxee turam bëgguma mu wax turam après dina ma set si mais dinañ ko bàyyi mu wax waaw fii tribune lay nekk pour toutes les femmes victimes de Sada wax leen bu leen ragal di ñu joxe seen tur bu leen joxe bëgguñu sa ngeen joxe seen tur gàdd leen ko seen tur si suuf lay nekk on va vous protéger et on va régler ensemble les problèmes am na benn victime de Sada Kane bu bu ko wax jëla beneen chargeur bi moo baax chargeur bi moo baax mu jël ko fii comme ça chargé fii moom voilà bii da ngeen koy changé bii baaxul bopp bi da ngeen koy changé si beneen bopp salaamaaleykum. oui maaleykum salaam Leila. comment allez-vous ma chérie. ça va je vais bien de de vous approcher du téléphone et parlez fort comme ça ñëpp dégg la. oui oui. oui

may tooj dèjà euh, moom dafa nekkoon ci situation boo xam ne dafa xaw a délicate ma mu ñëw sukk jooy ma yërëm ko ci abal ko sama xaalis lebal ko ko ah mu ciy dund parce qu'il n'avait rien à manger mhm. xam nga ma jox ko ko mu ciy dund dem suuf ko dem si biir xam nga rek amaat tuuti xaalis ma koy fayee ko sama xaalis mu ne ma léegi nañ def def test ADN nii ñu toog il a dit pendant presque deux ans ou trois ans il ne l'a pas fait toog ba mu nekk mu xëy suba teel ne daf koy dem defi on a avant ça on a été au tribunal yeeg wàcc ba heureusement la perte de l'enfant maintenant nag dem na la autre service là on attend les résultats moom rek laa yàqal te mu génn waaw test d'ADN ma wóor non ñii duñu ay nit test d'ADN rek ma wóor

oui. déedéet kay te il était dans mon entourage également. jeex na amul problème dans les victimes lay pas les victimes dom après di nga si dugal. mais ils sont ils sont tous pareils ah ñu si bëri dañuy biiral rek di excusez-moi du terme di tooñ jigéen yi après jur sànni loolu loolu fi nga ko

ndeysaan. ma ne la il a reçu sa part yi je à peu près combien d' argent. Eh, de millions. presque 20 millions. presque 20 millions ndeysaan. dañu noonu la lekk jigéen ñi lekk jigéen ñi <laughs> naxaate lekk jigéen ñi rek lañ fi nekkee ndeysaan. man de man man de euh, musuma lekk pension alimentaire boobu te dañ leen di dañ leen musuma lekk pension alimentaire boobu dañ la koy ñaane jox ndeysaan nga toppatoo sa doom rek billaay dañ la koy jox musuma lekk pension alimentaire boobu sama premier mari dañ ko daan pension alimentaire musuma jox pension alimentaire oh le standard explose ñépp a ngi woote waaw waaw <laughs> ndeysaan dina la comme que tu as les preuves rek comme que tu as les dina la ko remboursé na jaay këram remboursé la ko comme que tu as les rek waaw voilà amul benn problème tu as les preuves sa maison c'est këram rek la defe këram rek la defe xeex bi danañ ko xeex. waaw waaw dinañ xeex et dans le calme sans histoire. voilà calme sans histoire parce que namuñu dara. namuñu dara dañ leen di sarax dañ leen di sarax xaalis namuñu dara waaw. dinañ di sarax. bien sûr wax bi ñuy wax nag naqari na leen wax bi ñuy wax naqari na leen waaye namuñu cucu <laughs> kon on va se parler en orantaine mu nekk voilà ndeysaan benn victime wu mu nekk benn victime Sada boo xam ne Sada Kane lekkal na ko 20 millions am ak moom doom mu dof léegi nag euh, noonu la ñuy def saan donc je suis pas la man nag moom lekkalu ma dara Sada Kane moom lekkalu ma dara bii moo ko gën a soxla charge te bii moo charge bu baax bi donc su ko defee léegi am na ñoo xam ne du ñu ñemee wax hors antenne dañuy préféré wax jox ma léegi dinaa mën a jële sa bopp am na ñoo xam ne dañuy préféré wax ñi ñu ngi wootee des États-Unis mais képp ko dugg rek ñu ngi lay ñaan wax bi rafet wax bi gàtt ndax ñu bugg a intervenir bëri nañu dès yow da ngay ñëw épingler ma sama numéro nandite ngay jaay da ngay def nii rek mën nga ko def teg doo feeñ da ngay def nii rek épingle numéro nii bind pour participer après épingle ko mën nga ko def te doo feeñ mën ngay def pour participer pour participer mën nga ko def si beneen téléphone def ko si téléphone bi kon def ko si téléphone bi soo duggee si am na page Facebook da ngay bind pour participer appeler par WhatsApp 00 221 77 612. 39 69 moom ngay def donc 00 221 77 612 39 69 man nag Ndella Madior Diouf nag kii frot si picc ki si frot si picc képp kuy dugg ci sa live bi da ngay wax wax bu correct ñu enjoy et on passe à autre d'accord je commence à prendre les appels au 00 221 612 39 69 woote leen on parlera de cette affaire Ndella Madior Diouf Sada Kane et autres et autres parce que y a beaucoup d'autres victimes beaucoup d'autres victimes qui sont là et cette histoire-là on va régler tous ces problèmes am na ñu ma seet si personnellement bi ngi ne tël dugg dama dama tig dama foog ne woon sa Sada moo nekk sama kanam tellement que dañu ñuroo ndax xale yi ñoom ñëpp ñoroo mais Sada Kane yaay kan ba doo reconnaître sa doom yi nga xam ne sont issus de sa liaison hors mariage wër di tooñ jigéenu jàmbur wër di tooñ doomu jàmbur foog ne di nga ci indemne comme ça mais le temps ont changé y a maintenant les réseaux sociaux nekkatuñu époque boo xam ne RTT moo fi nekkoon rajo. nekkatuñu si époque boo xam ne rajo privé yi dañ leen doon compté et que pour jaar si journaliste si journaliste soo leen jëndee parfois wala ñu nekk xarit sadakam duñ la jël léegi télévision si poche dañuy tonn rajo si poche télévision si poche loo bëgg a wax si àddina bi da nga wax àddina bi dégg man ku xeex ak man da nga rep parce que dama am samay média yoo xam ne su ma ko décidé laa wax waxuma su may fawantu de su ma décidé live billaay ngeen xam ne décidé naa live su ma décidé def live ngeen xam ne décidé naa def live mun naa nag di fawantu nii rek wéet sama benn ruq di live su ma décidé da ngeen xam ne décidé naa waaye si participer après épingle su ko defee jaamane ñooy képp koo xam ne je vais commencer à prendre les appels objectif affaire bi c'est pour sensibiliser la justice sénégalaise c'est pour sensibiliser les parlementaires de l'Assemblée nationale du Sénégal et du monde entier et surtout de l'Afrique c'est pour sensibiliser tous les parlementaires tous les parlementaires africains parce que ce problème n'est pas seulement un problème du Sénégal c'est un problème entier africain. Si on veut que les enfants soient tous déclarés, il faut régler cette histoire de refus de paternité. Et que xale yi xale bu qui n'a pas demandé à su juddoo yaayam rek doy na ci déclaration pap ji su fekkee dafa bañ walla dafa ruus parce que dafay am bañ dafa am ñuy bañ am ñuy ruus am ñuy ragal kon naka waa sénégalaise jox la possibilité de déclarer la nom du père et de la mère et la vie continue parce que ñun mun nañu yore suñu doom xaar ñu ci kenn mais am na ñoo xam ne mënuñu loolu moo a ñitti di jur sànni moo war waral infanticide moo waral et cetera et cetera te c'est pas normal. bi ngeen si dugalee Ndella Madior Diouf nag si la guerre bi si bi sottee parce que dama ko muñal kenn du wax ko muñu ma 27 ans de muñ garder sama dignité toppatoo sama doom sël ah ku ma nee muñu ma rek danga may tooñ ku mu ne a wax lii sur la place publique danga tooñ doomu jàmbur di ko nëbb ku ma nee la wax lii rek dangaa tooñ doomu jaamu di ko nëbb wala sa mag tooñ doomu jaamu di ko nëbb wala sa bàyyi tooñ doomu jaamu di ko nëbb ndax combat bi dañ koy xeex définitivement en Afrique xale yi ñu leen di déclarer correctement et la vie continue nit déclaré na fi doomam te du ko toppatoo yaay ji toppatoo ko yow da nga nekk Madior Diouf mais Madior Diouf moo la yoral doom Madior Diouf moo la yoral doom soo amoon jom soo amoon jom doo am comportement bi Sada Kane yow laay waxal soo amoon jom doo am comportement bi xeex bi nag dinaa ko xeex mort vivant les te dis bien bëgg a mel ni Yves Montand dama lay sulli dama lay sulli waaw xeex bi dama koy xeex ndax xale yëpp dina leen toppatoo yëpp. du si am benn bu manqué benn bu manqué ay kan kon euh, defe na voilà épinglé leen leen numéro téléphone bi ñu jël diw kii moo am chance dugg ñu nuyu ko salaamaaleykum dañ leen di ñaan nag ngeen euh, wax bu fort parce que fi ma nekk nii dafa bërëm bëriw oto su ko defee ñu dégg leen bu baax a baax ñu lay ñu lay déglu maa ngi lay déglu maa ngi lay déglu maaleykum salaam maaleykum salaam yaa ngi woote France ñu ngi lay déglu voilà man sama sama cousine la daloon ndeysaan cousine léegi biñ ko ëmbalee après waa ji dafa bañ. voilà léegi bu euh, ñu dem bu euh, ñu dem rek mu bañ bu ñu yónnee mu bañ même man mii sax jël naa ko oto dem ba këram mu bañ mu ne dee du ko nangu. Mhm. ba xale bi xale bi man maa jël en charge yaayam bu ko ëppee un mois ba ñu ko ci ba ba ñu koy fekk moom maa jël en charge lépp ko ba léegi nag fi mu nekk nii fi mu nekk nii xale bi elle a 10 ans. ndeysaan Sada Kane si boppam. jël ko en charge doom bi yaay ji lañ ko mujj jox santam sama sama sama cousine te loolu dafa nekk Sénégalais yi Sénégalais yi ñu koy dugg te amuñu benn droit vraiment ñu ngi ci combat bi parce que je suis derrière. Hmm. voilà loolu laa bëggoon participer bu euh, xam ne que bu euh, n'est pas la seule y en a beaucoup de victimes. Hmm. y en a beaucoup de victimes. ndeysaan au Sénégal. ndeysaan. voilà c'est trop touchant bi ma ko gisee dama ko gis après je me suis faut que je participe. envoyé naa message pour première fois et vous les donnez. ndeysaan et le père c'était le père c'est qui c'est Sada Kane. c'est que je te je vous pose une question qui est le père qui est Ok. C'est un jeune, il est à Kaolack, mais oh. c'est pas, pas ça. Ok. une histoire similaire. Mais il faut, régler ces problèmes. Voilà. Voilà. Mais oui. on ne parce que la police, on te dit que tant que l'homme n'a pas agi, mais su demee police dañ koy jàppale sax day am solidarité masculine. mu day am solidarité masculine sama caméraman yi ñu ngi may ñu ngi may reetaan day am solidarité masculine n'importe quoi. bien sûr bien sûr bien sûr voilà xam naa dafa yàgg ci benn texto comme ça on pourra on pourra se battre ensemble. voilà merci voilà merci beaucoup merci d'avoir il y a beaucoup d'appels il y a je ma bi salaamaaleykum mbokki fan allo mbokki fan essayez de parler un peu fort. ok kon yaa ngi may dégg. léegi maa ngi lay dégg waaw maa ngi lay dégg yaa ngi woote fan. man maa ngi woote États-Unis États-Unis laay waaw maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp je vais être très euh, euh, dinaa ko gaawal. Mhm. donc su ma dugg ci live kenn. Mhm. voilà man ci sama bopp damay def ay live. mais tey da nga dugal sujet boo xamante ni. je pense que ça doit interpeller toutes les femmes. pas seulement les femmes qui été victimes de ça. mais je dis les femmes dañu war a ñëw retrouver faut toutefois qu'on se combat et aussi les hommes. Quand je dis les hommes, je dis les hommes qui sont honnêtes et courageux. C'est-à-dire que c'est un combat commun. C'est pas un combat, par exemple, je sais que dès le major, il y a c'est quelque chose boo xamante ni c'est personnel. mais en même temps. tu ne le fais pas pour toi-même. absolument. mais le groupe de vie y a tellement sens de ça, qui sont victimes de ça. Mais le, le pouvoir qui est donné aux hommes au Sénégal est un pouvoir exponentiel. L'abus, la violence sur les femmes et les enfants faut qu'on accepte de trouver. Ici aux États-Unis, là où je suis née, fille à mon Dieu n'est Oh, oh, oh, oh, oh. Excusez-moi. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Oh, excusez-moi, excusez-moi. Appel dañuy bëri woon mais il faut que mu woote waat. Attends, je vais essayer de voir ndax mënuma ko woo pour m'excuser. Oh là là. Oh là là, et là, je pense c'est elle qui a rappelé. Yow yaa woote waat, c'est bien, c'est bien vous? Voilà, heureusement. <laughs> Waaw, dama doon wax Ndella, man les gens ne jouent pas avec les participants. dañoo jox ci dañoo jox jigéen kër gi. jox ko door. xam li nga xamante ni moom la góor ñi di def jigéen ñi. Mm-hmm. ñu ñëw teg ay lois yoo xamante ni day la c'est pour protéger les femmes et les enfants. et mm-hmm. à tout point de vue. Mm-hmm. man li ma jaaxal mooy pourquoi ça fait énormément de temps. pour que la justice sénégalaise mën a def. parce que loolu juge bi moo koy demandé. en mhm. ce que. Mhm. ñu def DNA test saa de kan def DNA test. parce que 27 ans quand même. 27 mhm. ans c' est toute une vie. c' est toute une vie. c' est toute une vie. doo may ñëw jël téléphone bi tey laa leen di wax dee la ma ni leen les gens ne savent même pas. les dommages. mentaux intellectuels yi nga xamante ni moom lay def ci nit ki nga xamante ni moo koy subir. moo tax. les gens qui de se dire. Mm. oh dangay weer sa doom dangay def nii ces gens-là nee na doo rien compris. absolument. il faut que Sénégal. Mm-hmm. que les mm-hmm. se mettent à la place des autres. Mm-hmm. di fiir li nit ki di fiir. di ko ko accepter. di ko respecter li nga xamante ni moom ki di dund. mère célibataire c'est pas donné à n'importe qui. maa la wax la force. mental physique le courage l'abnégation pour mën a yore doom à toi toute seule. sans mm-hmm. son père est bien vivant et mm-hmm. refuse de le reconnaître. Mm-hmm. et en plus de cela le problème que j'ai. Léa. pourquoi pourquoi ces médias au oh, au contraire au contraire jigéen bi lañu attaqué jigéen bi lañu attaqué. Ah, de présenter une image. bi nga xamante ni moom la ko Sénégal yi xamee. et il faut que ça cesse. gis mm-hmm. nga nit kiy def lu bon. waaw. mën na di sol veste ak cravate. oui. nit kiy def lu bon. Mm-hmm. mën na nekk président directeur général compagnie. absolument. c'est pas li nga doon que yow looloo tax doo def ci lu bon c'est-à-dire que il faut que médias yi moo tax quand tu as commencé au début à parler des médias.

combat public. Et moi, personnellement, après qu'on se parler, moi, c'est un combat, je dis non à toutes sortes de violences faites aux femmes. Mm -hmm. Moi, je connais une personne personnellement, mm-hmm. boo xamante ni qui est très proche de moi d'ailleurs, mm-hmm. boo xamante ni dafa enceinte nit bi mu amee 18 ans. Mm-hmm. il me l'a dit. ma ne ko mu ne dañu ñëw ni ko maamam. maamam moo ne du moom. voilà ma ne ko lan mooy sa maam moo ne du yow. vraiment te nga xamante ni c'est quoi mu ne ma j'ai vu l'enfant l'enfant me ressemble. man il faut aller chercher son enfant. yaram daw na il n'a pas reconnu cet enfant là la femme s'est mariée avec son autre idée là et c'est ce homme là qui a reconnu cet enfant et ça c'est inhumain c'est inhumain bu ma ànd ak yow ci combat bi mm-hmm. il faut que ñu créer ay droits au Sénégal Mm-hmm. yaa rien de nouveau Leila. maa wax li de nouveau. maa la wax li dafa yàgg suñu société mm-hmm. dafa yàgg dafa yàgg dafa yàgg. Mm-hmm. mais mooy li ma mooy li ngay waxee. le président Macky Sall est en train de nous écouter il faut qu'il fasse une proposition de l'Assemblée nationale exactement exactement. mooy waaw waaw li ma bëgg a j'ai pas j'ai pas du ma jël sa live. j'ai vraiment beaucoup de choses à dire par rapport à ça. mais je laisse aux autres aussi le temps de de de. de participer. mais loo ci bëgg je suis très contente. que ah. eu le courage. de t'adresser aux Sénégalais. Mm-hmm. et de parler de ta situation personnelle bi nga xamante ne nag da nga yëpp nag. maa la wax li jigéen ñi nag yéen yëpp nag ñëw leen ñu ànd ci combat bi. Mhm. parce que lii du man rek lay dal. maa la wax nii voilà donc vraiment vraiment vraiment euh, chapeau à toi. voilà envoyé ma texto nga wax sa tour envoyé ma texto en hors antenne après on va discuter en hors antenne. waaw naa la ko naa la ko voilà merci beaucoup merci merci d'avoir appelé donc am na keneen kuy woote depuis la France. du ñu def lu dul euh, jël ko ndax ñu bëgg a intervenir ndeysaan dañoo bëri xaaral ma jël avancer. Je pense que voilà. Oh là là, il y a beaucoup d'appels. Il y a beaucoup d'appels. Salam salam. Comment allez-vous? Ah bien, vous, ça va? Je vais très bien. Fay wootee? maa ngi wootee Italie. ñu ngi lay déglu. ñu ngi lay déglu ñu ngi lay déglu. allô. oui tu m'entends. maa ngi lay déglu léegi waa allez-y. maaleykum salaam. waaw man moom je dis que je suis Sarah. ndeysaan oui man maay Sarah. ndeysaan. oui ñun ñooy Sarah parce que euh, de l'intervention comment a fait Sarah euh, je me vois tout simplement man Sarah laa tudd. sama yaay mooy sama. euh, depuis à l'âge de 6 ans. Oui. J'étais en tribunal. Donc, euh, victime de nous. En plus, aujourd'hui, j'ai 40 ans, j'ai 45 ans, excuse parce que euh, euh, li may dund mooy ne góor gu nekk Sénégal beneen Sada Kane koo xam ne daf may liggéey ci sëriñ lu ma amul. lay oh. nekk. Mm-hmm. yeew ma def may. sàmmkat yi dañoo bari moom. ndeysaan oh eh, y a beaucoup d'appels. le standard exposé donc man li la ko. benn yoon parce que suñu yaay yi jooy nañu ba càggudi mm-hmm. te ñun doom yi ñu ngi ëlbatikuwaat di jooy ndaxte bu bis bi yàlla sàkk ñu ngi jooy korog bu mu wàccee liggéey sama papa samay doom baay ba léegi may wax ak yow nii dañ ma génn ci miraas bi parce que loolu la charia tudd encore mais pour wàlle sama papa sax def na sax un petit effort wàccal ma dara loolu mu ma wàccal sax bëgguñu ma kaa jox pour wax la suñu yaay yi dañoo wax na Sénégal nag dafa am doole ci ñeent te tegu ko fenn ndax ñu ñoo leen mu téeméeri junni yoon. ci côté bu nee nekk. dun ay xale yi ndaw nekk. man à de vingt cinq ans. lay doog gisante sama papa fii ci Italie. ndeysaan. te pourtant mère bi d'accordul woon mais ñun ay doom lañu. Mhm. mais pour wax la ne ne ndey toujours du abandonné jamais doomam. Mhm. parce que nii nee na def tey ah dama ko. yàgg maa ngi doon suivre ci Facebook bi depuis quelque temps mais tey dama toog ne damay combat moom man ci ginnaawam lay nekk di combat parce que suñu yaay yi dañoo sonn. Mhm. yaay dañoo sonn ba ci kanamu yàlla te kenn du mhm. wax. Mhm. am na keneen kuy kuy bàkku bëgg a doon meeru Grand Yoff biiral na àdduna bi yëpp na ko ñëpp xam. kooku moom sama xaalis da doon lekk duñu wax sax turam ndax dañ koy sutural ba tey. waaye ku ne ku nekk rek xam nga sa côté. ñi fi nekk dañu ay kilifa nekk ñoom dañoo bari. ñooñu nag la ñu war leen di seppi ne ne di leen jox tur sant di leen di tegal di leen di kartale gis leen xam leen parce que ñoo ngi yàq adduna bi ndeela yi nag bari nañ fi suñu yaay yi lañu foog ñu jàppale leen bu ñu nekk ci ginnaaw ndeela yi di wax ndeela dafa lii dafa la non ndeela yi suñu yaay lañu sont arrivés au maximum dañoo sonn dañoo fatt kon il faut ñu combat te combat bi suñu combat la day naa la du combat mbee la kese képp kuy jigéen ah war nga taxaw di combat ci lii. Mm-hmm. Mm-hmm. ndeysaan. on est fatigué. tout à fait tout à fait. on est fatigué. Mm-hmm. donc man lii laa amoon ci li may wax. ndeysaan di wax tatandee la ne t'arrête pas. continue continue. ndeysaan oui ñun ñun sa ginnaaw parce que. jigéen rek la ñu te doole doole jigéen ñëpp xam nañ ko waaye yàlla may nañu xam-xam. Mm-hmm. te dañoo jàng. Mm-hmm. kon nag euh, te benn yoon. Mm-hmm. parce dañoo yàq àdduna xale yi fi juddu yëpp te amuñu bàyyi kenn xam te psychologiquement physiquement mentalement euh, problème yi ñuy teg kenn xamul nu mu kenn xamul nu mu toll. si man dama dem ba am vingt cinq ans di wóor ji sama papa ngir la ndax jigéen laa foog nga xam kan mooy sama beneen côté. mais yooyu yooyu ay ay ay ay ay ay ay honte la. Mm-hmm. yooyu ay honte la. Mm-hmm. Mm-hmm. ëpp doole fuuf. kon nag il faut que ñoom ñu jël ci suñu borom bi ndax bu ñu ci yoonu suñu borom bi jigéen loo ko mën a sax tooñ tooñ tooñ sax ko mooy que ah doo ko toroxal ndax toroxal mënul weesu nga def leen nii ba pare ëlbatiku won ko ginnaaw loolu mooy toroxal jigéen. yàlla subhaana taala ñun ñi tooñee sax daf ñuy jéggal. Mm-hmm. Mm-hmm. dem baalu ji ak defoo ko. Mm-hmm. on est fatigué on donc euh, mama Ndéla mhm. li ñu koy conseillé mooy na continuer combat bi bu arrêté benn yoon on est tout le monde derrière lui euh, derrière elle j'ai j'ai subi trop de pression pour ne pas faire de live j'ai subi trop de pression ma ne ah. leen ma ne j'ai subi de pression ku ne mais bon j'ai dit écoute c'est le moment de parler c'est le moment de parler bul arrêté bul arrêté benn yoon jamais de la vie arrêté benn yoon parce que Sénégal defuñu fi lu dul rek toog rek di wax ku nar a campagne. donc euh, ni ñu koy xaw ma ni ñu koy waxee ban olof la waaye pour pour arrêter parce que Sénégal la fa nekk mooy loolu rek. donc mm-hmm. sa poche fees ngay joxe rek ñuy dem gauche droite ñoom loolu lañ fi nekk dëgg wanul moom moom lu ñu xamul la. Mm-hmm. xamuñu dëgg mooy régler dëkk ndax tey jii bu ñu amoon dëgg du ñu toll fi ñu toll ah te coronavirus bi nekk ci biir dëkk bi di lambale dëkk bi te ba léegi amuñu benn solution boo xam ne. dimbali ba ñu génn ci benn nanga parce que on bu ma sax jàll parce bu ma waxee ñu yaakaar ne wéne politique mais moi je suis moi aussi parfois je fais des contre ce gouvernement qui dans ce pays parce que ñun bi ñu am moo baaxul ak sa marx nag doomu at gouvernement bi def fi dara dara la fi deful parce que la ku toog di xullee ba coronavirus bi dugg ci biir dëkk bi di rey nit ma lay ne ba tey suñu góor yi amuñu yaakaar ci ñoom amuñu ci ñoom te duñu mës am yaakaar ci ñoom te jigéen ñoo toog ba léegi jël lislaam bi teg ko ci suñu kanam ah di wax ne lislaam moom nee góor nee góor d'accord góor ak jigéen bokk ñu doole waaye yow xanaa xamoo ne jigéen moo la jur juróom-ñeenti weer mm-hmm. munoo génn ci àdduna te jàlloo ci moom mm-hmm. donc loolu il faut ñu sóoraale ko il faut ñu sóoraale loolu lépp il faut ñu jox cër jigéen fañ ko bi dafa yaatu na problème bi dafa yaatu mhm. ndax fu nekk ni yow maman nga yaa ngi wax mais ñun doomi bu ñu waxee fii àdduna lii mhm. rek laa amoon ci li may wax tatandee la voilà merci merci nga nuyu ma ñëpp en Italie nuyu ma ñëpp merci beaucoup voilà kon ñu jëlaat keneen euh, fii euh, donc salaamaaleykum bon y' a beaucoup d' appels beaucoup d' appels ndeysaan gaa yaa ngi woote ndeysaan ku nekk yaa ngi bëgg a témoigner am na ku nekk si euh, oh là là on va essayer de prendre cette personne pas facile ah salaamaaleykum. maaleykum salaam. mbokki fan. allo. mbokki fan mbokki fan. mbokki Tëngéej ñu lay déglu da ngay wax bu fa bu bu bu force ci téléphone bi. tout est en direct yaa ngi en direct nii. waaw ah, waaye en soo buggee nekk en antenne da ngay xaar ba ñu pare émission nga woon. waaw mais dañuy dañu dafa am solo trop mais day day dagg day dagg bi day dagg. ah day dagg xanaa si Facebook bi wala si rajo bi. te am na solo trop bëggoon nañ ci. quoi jëlee ci xam-xam émission bi day dagg na émission bi day dagg ne pourtant mi ngi c'est des connexions sur Facebook ci wala si moom la si moom la mais ñun ñun mi ngi jàll normalement non. mi ngi jaar normalement si moom la waaye mi ngi jaar normalement kon du ñu def lu dul kii mi ngi woote Maroc ñu jéem ko déglu salaamaaleykum. maaleykum salaam. waa maa jox ndey la maa jox Diouf waaw jéem a wax bu fort ñu déglu la yaa ngi wa direct. waaw ñu ngi lay déglu vous êtes en direct allez-y allez-y. allo. ñu ngi lay déglu vous êtes en direct allez nag loolu woote même problème la sama yaay amoon ci sama papa. sama papa en face kii la nekkoon RTS. société bu mag foofu. nekk fa responsable. léegi condition yu baax mais chaque fois bu ma demee Sénégal. sama yaay daf may wax ci naan boo deful test bi ba ma wala ko baal ba ba ngay génn àdduna parce que am nga mooy yi mun nga ko def te yaa ngi man bu ma tëddee ba tey tëddee du ma nelaw am plus man dugg naa ko dugg naa ko foofu ni ma toll damay man man man ma war a yare li war a ma am naa ma war na ma may na ma sutura ma jikko ju baax yor daan ba maman moom mooy fam dañoo bëgg a xam suñu maam ñu ñu mën sa sa papa. parce que dèjà bu nga xale yi si waa étranger dañuy ñoom xam nañ ni sama papa bi moo ma yar mais dafa papa dafa naan pourquoi mu sant yi yow nga sant yi déplacé dinañ ko def sans problème. te dem naa daw naa sama ginnaaw papa pour mu pour mu baal sama yaay ak nangu parce que man papier zrobi nam się zachał. man damay wax sama sama moroom jigéen. Saara Kame. Ndax xam naa ne yaa ngi même mm-hmm. chose. Mm-hmm. Mm-hmm. ndeysaan. éteint sax éteint sax éteint. santam parce que sama yaay bu ma wax lépp looloo ma xeet waxuma lépp man tam bu ma ëññut sama waajur bu góor mu ngi dëkk caaro yu géej ñangeen bu mag bu mag kuruta nag ñangeen bu mag la jël te un jour un jour bu sama yaay continuer di insister dinaa ko porté plainte ndeysaan defuma ko ngir man de parce que sax dawuma daraam Moïse soxlawuma dara maa ngi li ma xam sax amu ko li ma am ay jabootam surtout ci sëy ci sëy amuñu ko loolu tey ndeysaan doom yi ñu bañ yàlla defal jàmm dañuy dégg ndeysaan te tata après dinaa la woo parce que combat bi dama bëgg nga jàppale ma sama yaay foo ko continuer insisté parce que affaire tribunal Dakar dafa difficile da ñëw ñu di la yëgloo di la wàccloo di la yëgloo di la wàccloo am li sama papa moom fu ma ñëwee sama benn yoon wax ak moom ci lool doon laaj ay mel ni ku may chantage di ma laaj xaalis di ma ñaan jox ko. te daan naa ko jox gaal. Mhm. ni affaire bi la. am mouchoir hmm. jigéen kum ne moom la rek moom la. absolument. boo gisee sama yaay dama defal test ne defal test bi. ma hmm. dem ba am âge bi doomu séeréer pire la. doomin ka pire. sama yaay lu hmm. loolu moo am. ndeysaan bëgg naa nag combat bi nag nga jàppale ma ci bu baax du ma insister mais bu ma delluwee temps yi bëgg naa ñëw bu ma ñëwee bu insister parce que même sama voyage passé mhm. noonu la ma defoon ne ma naa def test bi sinon bu deewee duma ma ko baax ndeysaan ñaan ma yàlla yàlla na yeex ndeysaan moom defu ko pour am ci waa ji dara parce que ñun suñu situation sax waa ji amoon amatu ko mhm. avant moo ñu gënoon situation mais fi mu nekk nii mun nañ ko yor ba yoraale ay famille ndeysaan <laughs> te lépp ci sama loxo toujours comme ça man mii la jaar. waaw dëkk bii ma nekk. maa parce que ma may ma teraanga sama mm. ndey nag liggéeyal ma ko. ndax lu ne nag. xam mm-hmm. nga doomu séeréer nanguwul am jom. nanguwul gàcc sama yaay loolu la bëgg ba tey muy am. ndeysaan. loolu la bëgg ba tey moo tax mu bëgg affaire bi du leeral ko. Mhm. tamit dëgg. parce que te yaayam ci sëy euh, këru kujje la doon sëy. Mhm. maa ngi lay bàyyi tata sama xol daa fees. voilà merci yàlla dolli sutura. amiin Sara aussi ne ko je l'aime bien. ndeysaan ak ni mu waxee woon. ndeysaan en plus na góorgóorlu toog ba yàlla may ko ci kër bu baax na takk sërëm. baax a baax man loolu laa koy wax man fi ma jaar walaa mhm. bëgg sama doom yi ñu rejeté yëpp lu foofu laa bëgg ñu jaar ñëpp mhm. ci jaar bu neexee yàlla wallahi lazim ah di nga teg mhm. man parce que bu ma neex laay dawal heure bu ma bëggee sama jëkkër changel ma ko mu changel ma ko sama papa bañ na ma de mais sama jëkkër mosuma koo xamee dafa xam ne dafa xam li mu yor may ja may ma ma nekk jabaram nag jabar du am classe kenn di sa bopp mais xam naa may tam ndeysaan maa tota. voilà merci merci beaucoup merci ndey ndeysaan merci mi ngi doon woote depuis Maroc donc du ñu def lu dul euh, jëlaat euh, keneen parce que appel yi moom nanguwuma nangu ñemewuma sax arrêté. Euh, changé naa studio pour parce que y avait trop de bruit de l'autre côté ça m'a permis de savoir que là-bas y a beaucoup de donc donc du ñu def lu dul jéem a jéem a jëlaat kii moom mi ngi woote Sénégal depuis sànq donc xaar ma jël ko salaamaaleykum allo salaamaaleykum. maaleykum salaam.

parce que xam nga sa bopp. vingt-sept ans ou kooku mu ñëw su nekk da dee. Mm-hmm. ñàkk doom. Mm-hmm. man la xoolee sama yaay nag man. sans force fii tey noonu nga yaree saaxaa. Mm-hmm. mënoon nañ koo intrant bu ñàkk fayda. papaam nag moo doy waar na ma yàlla baal waruma ko wax. waaye ba mu déggee mu ne moom papa. moom hmm. <laughs> bu du toorodo. toorodo bu rax la. toorodo day yëngu. toorodo bu rax la. toorodo bu muy bàkkoo. toorodo bu muy bàkkoo de bu mu déggee kaba jooy Saara waroon na yaramam waroon na daw. xale bi neexoon ku nekk bëggoon koo jur. xalaay hmm. ma ma teg la fin waaye mm-hmm. xale bi réglé ko journaliste yi ba bu ko faa humilié waaye nag da nga ko liggéeyal mm-hmm. tey ku fi sa ndey liggéey ku ne da ngay teg am barke bàyyi d'accord mais day fekk sa bàyyi def dara ku sa bàyyi deful dara barke rien du tout mm-hmm. man gëmuma loolu combat bi nag man de sam ne jamais arrivé mais les femmes ñëpp ñuy ngi derrière wax ndax nag yow li ngay wax da ko xam ci Sénégal boo ñu nee dëgg ñu ne dafa bari wax soo noppee di leen leemal ñu ne ay waay. Mhm. est-ce du dëgg waa booy bàtt ñu ne dafa ñàkk kenn. Mhm. dafa yor jikko tubaab waa ñun a def ñun Sénégal ñun ñu doo tan mhm. ah les femmes ci kër goro yi ñu ngi souffrir ñu ngi ci ñu di tooñ ni yàgg les femmes ko te ñu ne kenn du ci wax. Ah. tey macha allah pour président de la république tey bu ñu di ko doon ne ko tey su mu toog ko toogee ginnaaw yàlla mareen la. tey kon ñun nañu respecté. daanaka moom nga xam parce que ñun ñuy judd deux bi quatre-vingt quatre-vingt-un jëm ci moom la ñu xam. Mhm. tey jii waroon na sàmm image am tey day ñëw. Mhm. leneen ak leneen ak leneen. Mhm. doomam ji la ko fëcc sax ko ne ko pardon moo ko war a baal dañ naan bàyyi di baal doo du baalu waaye moom na baalu saara mi ku sañoon ñun on est tous tous sara. allah law la cap. law la cap sama cap ak keneen nii mhm. macha allah ma chérie du mhm. courage nag te nag jógal taxaw ak say mbokk de mhm. parce que lu nekk ngi ci dëkk bi xeex moom boo ko commencé xeex noonu yi taxaw ñëpp gàddu seen i jaas yàlla la yàlla la fal amiin laay bi nag na ci ñëpp jàpp ba pare nag te nag ku nekk na nga gàttal man boobu ba léegi sama téléphone laay woote di insister c'est la première fois mais vraiment je t'encourage yàlla na yàlla defal jàmm yàlla na yàlla defal sutura. tooroodo mm-hmm. euh, tooroodo kay xool sa doom bi ku fa ñu ngi bëgg doom te amuñu doom. Mm-hmm. ñu koy wër fu ne. ñu mm-hmm. ñu ngi séeri biir kër di say beneen beneen góor jur say doom ngeen koy nangu est moo ko jur on sait pas. waaye yow ku xool sa doom bi macha allah rek leen kii xam ne kii de tooroodo daal kay jël sa doom bi laa wax woo ko leneen. <laughs> Sara du courage milliardaire nga fiy am léegi. ku nekk bëgg laa gis. nekk mhm. c'est trop tard nga yore bant wala nga déjà il est endetté. Mhm. parce que lii nit ñi naan moo ko def ko. Mhm. bu fekkente ne dañoo di di yëpp lii fu koy wax. déjà même bu dul dara réputation dafay sànqal. yàq nga ko. sa famille unité bi anam. anam. mënoo am taaw bu sukk saara waaye kay jël sa doom bi waay. ndeysaan reconnaître ko ndeysaan. boo ko mënul def nga def ko en douce mais yow da nga dee. Mhm. vingt-sept ans góor boo ko muñoo yaay añ yaay la yow dañu lay dégg ndee la ma joor ba léegi macha allah. Mhm. la nga war a def def nga ko nag. Mhm. waaye nañ may jàmm nag. fii fu la fii nga ñu ku ne ministre la baayam dafa biral loola ñu biral ndaayam nañ ñu may. waaw man daal je tout cœur avec toi. man boo ko wootee ma wuy ko. man je vais te prendre en bas après je vais prendre ton numéro on va parler. ndeysaan merci merci beaucoup. allez au revoir. merci merci elles sont mu nekk xarit euh, euh, sénégalais yu baax waaye ñi ñoo baax ñi ñoo baax donc euh, elles se reconnaissent toutes toutes en Sarah li ma gën a neex affaire bi quand les gens entrent ne je suis Sarah. Mhm. man je suis Ndella Madior c'est pas la peine mais je suis Sarah ça me touche ana chargeur yi gaaw leen waaye na biir donc su Euh, dañuy def euh, jël keneen euh, ku nekk si ligne bi salaamaaleykum. allo. salaamaaleykum. maaleykum salaam soxna si. na def fay wootee. maa ngi wootee Sénégal bi. maa ngi lay déglu. maa ngi kontaan déjà di la encourager. si courage bi nga am. Mm-hmm. ngir wax parce que li nga wax ni dafa fees Sénégal. Mm-hmm. et que malheureusement nit yi ñemetuñu wax parce que dañu tëj seen gémmiñ yi. Mm-hmm. et que tey boo amee courage di wax encore waxaloo sa bopp nit yi ngay waxal. Mm-hmm. parce que toi tu as pu survivre. tu as mm-hmm. pu tey être courageuse yar sa doom. Mm-hmm. ta fille je l'ai déjà rencontrée à deux reprises elle est très bien éduquée elle est correcte et moi je l'admire beaucoup. xaw ma la yow mais gis naa sa doom à deux reprises ci jotaay. donc tey. lii dafa nekk loo xam ne dañ ko war a waxtaanee bonne fois pour toutes. Mhm. Sénégal y a trop naa fekk mhm. parce que li ma njëkk a énervé j'ai vu beaucoup ay góor yi si nekk naan jigéen ñi tey leen seen bopp. ok mhm. léegi nit amoo droit juum si sa àdduna. ou bien ku xës ba juum dañ la war a sànni à la poubelle. pourquoi nit boo juumee la société doit te récupérer. ñu tegaat la ci yoon. Mmh. njiital la parce que doomu aadama nga mmh. mais Sénégal on a tendance à banaliser les femmes pourquoi Absolument. on donne trop de pouvoir aux hommes Absolument. on donne trop de pouvoir à l'argent on donne trop de pouvoir au bien bi mmh. da gis nit yoo xam ne ñoo ngi téye ci ay sëy ñoo ngi am ay problème seen yaay yi waroon taxaw sutural leen kattanal leen ñoo leen di wax garaawul muñal pourquoi parce que le papa il est riche pourquoi parce biiral tey dafa am xaalis wala le biir wala doo on a tout te mhm. gis nga nag àdduna bi il faut ñu xam ne yàlla rek a fi nekk. Mhm. yàq jo yàlla bi mu lay sàkk tàgguwul ma sàmba tàgguwul ma demba. Mhm. jigéen ñi dañu gëm seen bopp. parce que en fait dañu dem ba yëf yi kenn xamatul c'est une pandémie on parle de coronavirus mais am na lu gën a garaaw corona ci réew mi waaw. mooy les femmes sont trop à la merci des hommes. Mm-hmm. chantage bi c'est partout. Mm-hmm. góor yi léegi faale to yu nga am jëkkër. Mm-hmm. faale to yu daga dañ lay jàpp boo bëggee liggéey bu baax dañ lay chantage. nga bëgg a wax ñu ne la boo waxee lii nga bëgg a réagir ñu ne la mais pourquoi après quoi benn cinq cent mille bañ lay jox benn iPhone cheveux ba ngay teg on te pourrit la vie te nit boo demee nag si àdduna ba ñàkk sa kaddu ñàkk sa baat ñàkk sa sa fay tu n'as plus rien ak koo mënti doon ma ne ma ne góor li nga wax sànq góor yi noonu rek la ñu mën a wax. góor yu bëri dañuy de yaa yaa yaa beaucoup de Sadakan yaa beaucoup de Sadakan dans au Sénégal. voilà yaa beaucoup de Sadakan. léegi ñoom ñoom suñu gisee jigéen yuy jóg pour xeex affaire bi du leen neex. ça les et pourtant tey ñoom ñoo waroon am parce que àdduna bi fi mu toll yaakaar naa am na benn éveil de conscience bu am ci àdduna bi mais la plupart des hommes dañoo hypocrite parce que lii moo leen arrangé absolument na yoo xam ne nit day nekk ak nit jarbaatam doomu jarbaatam mu koy def naka sudul noonu ñëpp yëg ko ci kër gi ne pat mhm. pourquoi parce que dañu ragal tamit dëgg léegi ngeen yàq àdduna benn doom boo xam ne day juraat yeneen doom tu sais y a trop de gens traumatisés bi jigéen ñi fi dox is too much they so scared dañoo ragal te that's not normal c'est pas normal il faudrait que nit yi gëm yàlla xam nga euh, nee la boo boo boo boo weddee yàlla jël sa mm-hmm. àdduna yaakaar ko si nit lu ne dina la dal merci mais boo gëmee ne yàlla mi la sàkk moo la fi mm-hmm. wàcce ñëw ngay góor di jigéen wallaahi adim nga def li nga bëgg a def nit da ngay juuma yaa ngi fan teew di envoyé di du bon moo def fii bu doon ko fi ko fii ko nañuy bëri ba bëgg a dee toog tourné nii bàyyi lii voilà. jaatee tam li leen dal nag suñu borom ñenn mhm. a des mhm. ko. Mhm. d'accord mais y a des choses bu àndee nit ki da ngay xool ko mën a récupérer gis nga yeneen réew yi loolu rek la ñu du dara. tout à parce que seen ressources humaines dañ ko fonk. tey c'est pas parce que tu as été une prostituée de wax que je vais essayer ma jéem a tegaat ci yoon bu baax. Moïse mais dañu naan def kii la non non kii lii kii laa société buy xalaatee noonu duñu dem fenn il faudrait ñuy nangu les sujets tabou ko teg sur la table ba pare di nangu dëgg son bi dégg tout à fait di nangu dëgg mais le Sénégal a trop tendance à juger ñun ñoo fi dàq juger mm-hmm. ñun mën nañ juger mën nañ duggul suñu yoon nekkul mën nañ bonal nit kër goo dugg fekk fa téeméeri yëf yu gën a bon mu koy nëbb nëbbal. Mhm. il faut qu'on arrête. Mhm. il faut que ñu changer affaire yi. Mhm. tey États-Unis Amérique euh, France yeneen dëkk yi xam nga lu ñu gëmee dañu respecté doomi aadama. respecté jigéen de respecter jigéen ñi. bu la jigéen dara bu ko defee da ngay gis benn prostituée bu dem si benn centre bu nekk Amérique ne I wanna change my life I used to be a bad person. absolument damaa nekk waaye damaa bëgg change dañ lay jàppale. dañ koy dañ lay gunge. Mhm. dañ lay daw dañuy yàq sa der dañ lay weer dañuy def naka su dul noonu. et c'est mhm. pas normal. Mhm. li fi nekk te waxuñu ko dafa bëgg donc man je t'encourage je suis derrière toi d'ailleurs je mène le même combat avec les femmes mooy jigéen ñi di valoriser waat seen bopp gëm mm-hmm. seen bopp dëggal mm-hmm. seen bopp mm-hmm. nga xam ne fii yàlla rek a fi nekk bu ñu ragal menace bu ñu ragal dara absolument ñu gëm seen bopp takk seen ay sër liggéey surtout ñu liggéey te bañ di basé wu si góor parce que ñu bëri li leen dal li tax seen ñuy noppi di pataaral ñemewuñu wax si parce que dañu jël seen àdduna wékk ko si góor. waaw ah, wax dëgg yàlla te loolu baaxul. loolu nag boo ko defee xam nga ne doo am fit bu mel ni nee na maa du toog di wax. ndax mhm. kooku ne la woo ne la toi tu la ferme parce que bu yow amoo loo wax. absolument. tandis que si tu as travaillé à la sueur de ton front ñeme ñeme wàcc sur le terrain di mhm. liggéey defal sa bopp. tey kenn du la ne duut baaraam. Mhm. moo tax di les enfants là n'ont pas cherché à naître. absolument mais bien sûr. dañu jël seen responsabilité c'est plaisir de cinq minutes nangu. parce que être lâche. nañu nangu. mais yow ñoo bëgg lu neex. waaw li li métti nag bu ñëwee nañ ko nangu nag. tamit dëgg tamit dëgg c'est bon doom nu mu neexee doomu aadama nu mu neexee bakkan. nga jur ba pare. taxaw nga ne lii man su ma fu mais loolu ñun defuñu ko jigéen ñi yàlla lañ koy def te ku dee ak sa bàmmeel. dinañ ko gis. bëccëgu nag gàmm. en tout cas moi je t'encourage là j'écoute depuis tout à l'heure ah je suis tellement fière de toi. en même temps je suis parce que yenn commentaires yi daf may merloo. <laughs> da ngay ñëw di ne tout le temps. day a a ñàkk mënut a ay non a ñàkk. la maa jóg am beneen ndee la beneen ndee la beneen ndee la Sénégal dina changer parce que gis nga ñoom ñoo def seen yoon di déglu. maa la wax lii maa wax lii. Sénégal yépp ñu ngi déglu tey Sénégal yépp ngi déglu parce que il y a des Sada Kane partout dans toute famille. famille bu nekk am na Sada Kane. mi ngi noonu nag donc seen bopp góorgóorluwaat farluwaat te xam ne fii yàlla rek ñoo te mhm. société bi muy accepté nit ku juum wala nit ku yàlla teg nattu. Mhm. ñu delloo ci la fii ku fi baax yàlla moo la baaxal. Mhm. donc nañuy muñalante te nañuy accepté nit en tant que être humain daal d' avant ngay xool ay jikko nit yaa boo sikkee di man après damaa gisul benn sikk boo xam ne jigéen moo faible góor mooy tiim jigéen jigéen xam nga jigéen dafa faible góor a koy tiim kon doom bu fa jógee dafa am benn góor bu tiim jigéen kon bi ñu nekk fii di provoquer jigéen ñi man bi ma tax a wax bi ma tax a wax góor ay tiim jigéen góor mooy tiim jigéen kon seen commentaire yu bon yi nañ ko garder seen i bopp dégg ngeen wax ji nekk ko garder seen i bopp man rafetal naa wax bi waxuma viol waxuma dara rafetal naa wax bi donc je vais parler dans le livre man dama wax rek moo jur xale bi lii la la li fa l'acte sexuel tout ça je vais le dire dans le livre. c'est ça. Et on Merci. En tant que merci. Encore voilà merci merci man su may def live yàlla dundal na ma ba du ma lire commentaire parce que sooy def ko soo lire commentaire dañ lay jéem a déstabiliser man du ma lire commentaire j'ai cette force boo xam ne li ma bëgg a wax dinaa ko wax mu dugg si xolu nit yi dina am ñu mu neex dina am ñu mu naqari je m'en fous sama objectif mooy mobiliser suffisamment de femmes mobiliser la justice sénégalaise pour ñu xam ne lii nga xam ne mi ngi am si dëkk bi am partout dans le monde ñu bëgg a nëppal nëppal Sénégal mooy dañ ñun loolu moo tax ñu créé parti politique xam nga tax ñu parti politique pour défendre la condition féminine ni ko Mariam wan lii waxee woon jigéen yu créé parti politique Sénégal li tax ñu jóg mooy bépp noon bi nga xam ne dañ ko def jigéen yi ñu faj ko xam nga fan lañ koy fegee assemblée nationale dina am ñoo xam ne si biir kër gi lañ koy fegee mais da ngay tombé si état de de faux toorodo ñiy bàkkoo seen bopp man je suis toorodo xam nga doo torodo yow soo nekkoon toorodo barki ne moo njaay Saara lu mu la seedeel da ñëw baalu ak maa jot Diouf doo toorodo un faux toorodo rax pur sang pur sang neneen lay rax a ñàkk jom yaa ñàkk jom yaa ngi may seetaan yaa jom soo nekkoon toorodo xam nga doo def nii mun ngaa nekk si yow si kër gi. ci famille bi kenn ñemewu la ñu doon intervenir ñëpp dee nañu yaa fi des suy suñ lay suum ñu lay suli sumi test d'ADN bi mort ou vivant on va le faire mos naa la ko bind nga nga nga ne tu traumatisé par Ndella Madior mort ou vivant on va prendre ton sang on va faire les tests d'ADN xamuloo ma de <laughs> tu as raison de peur d'avoir peur de Ndella Madior bii mooy xeex bu mag bi bii mooy xeex bu mag bi te dinaa la daan jënd bu set wécc bu am benn melante ñu jëlaat keneen salaamaaleykum salaamaaleykum am ñoo xam ne dañuy woote woote bu suñu leen jëlee sax duñu ko gëmee salaamaaleykum allo waaw maman yaa ngi en direct waaw maa ngi déglu na nga maa ngi lay siyaare bu baax. di nangu ziar bu wër. maa ngi wootee Kaolack nag parajuriste Kaolack. soriwuloo ma ñu ñu ngi sali. Euh, di la suivre depuis le début. ndeysaan. soriwuma la dëgg la yaa ngi sali dëgg la. Mm-hmm. mais maa ngi lay suivre depuis le début. Mm-hmm. sa live bi am na solo trop. en tant que parajuriste nag di xeexal li nga xam ne moom mooy violence faite aux femmes. Mm-hmm. te ku wax violence faite aux femmes lépp mu ngi ci. man duma personnaliser débat bi. Mhm. entre yow ak Sada. Mhm. mais dafa am exemple yu mel noonu ci biir kër yi. Mhm. exemple yu mel noonu ci biir quartier yi. exemple mel noonu ci biir réew mi. bëri na xale yu jigéen yoo xam ne fi ñu ngi leen di tooñ. tooñ leen ba pare rejeté xale bi taw seen responsabilité. bëri na xale yoo xam ne ñu ngi. di toppatoo. Mm-hmm. wala seen maam yi ñoo leen di toppatoo. Mm-hmm. li ngay xeex ni mu nekk xeex boo xam ne combat bu loyaal la. Mm-hmm. képp ku jëkk jigéen rek di yëpp. waaw même boo xeexut jigéen war nga ci joxe sa xalaat. war nga ko joxe parce que dafa nekk xeex bu loyaal. ndax dañuy wax toujours que aucun enfant n'a demandé en naître. oui benn xale bokkul damay judd. kon nag bu li amee jigéen ñuy teg jigéen ñi toor. man gis naa ci ñoo xam ne ci biir kër yi la ay baay yu ko def seen doom hmm. ay nijaay yu ko def si hmm. bëri nañ ci biir kër yi hmm. mbër bi ba taxaw ne bu mu la tudd bu mu la tudd bu taas xale bi tudd insecte yooyu ngay wax moom moo bëri ci réew mooy xale ñuy sànni ci foos beeg ci mbalit yi te loolu dafa war a jeex mais xam nga ñu lan mooy suñu problème dee la suñ problème ñun lee la mooy ñun jigéen ñi dañoo amul unité suñu bopp. malheureusement. jigéen ñi dañoo bokk nekkul benn gis nga jigéen ñi seen suñu problème lan la. Mm-hmm. mooy bu góor taxawee jigéen taxaw duñu xeexal jigéen moroom jigéen dañuy xeexal góor ñi. Mm-hmm. et les femmes représentent cinquante deux pour cent de la population. Mm-hmm. fii ku fi falu jigéen moo la fal ku fi taxaw jigéen moo la fal. si du kon jigéen ñi dañoo war a bokk ndey ak baay. ànd di xeex xeex di combat combat yu mel nii. li nga wax ni pour ñu xeex ko assemblée. Mhm. boo xoolee assemblée tey nationale sax dañ ñoo nax. Mhm. parce nombre ba fa nekk par rapport ak député ya fa nekk boo xoolee jigéen ñi dañ faa néew. Mhm. te jigéen ñi ñooy fal député yi mu nekk combat boo xam ne tey jii war nañoo mun a xeex nag xeex ko xeex boo xam ne xeex bu loyal lay doon. parce que gën gis naa fi rek waxuma la sax ëppal jigéen rek bañ bañ doom ba. mais man gis naa ak borom kër yoo xam ne dañuy nekk jigéen di sëy moom ama moom njaboot. Mm-hmm. ama moom jaboot ba jaboot ji màgg nga xëy def ko retraite conjugal ba dem ko fee wala génne ko sa kër mm-hmm. dem takk beneen jabar boobu sa biir kër génne sa mm-hmm. jabar ak say doom doo leen dundal doo leen toppatoo doo leen seet xam seen jàng dara man gis naa koo xam ne benn xarcel fii boo xam ne elle a été violée par quatre hommes par quatre hommes te tey ji boobu ñu ko def tey ba ñu ko demee tribunal ñett ña dañoo daw kenn ka ca jotoon dara def nañ intervention ba génne leen xale ba. Mhm. te xale bu jigéen baa ngi souffrir. Mhm. parce que baayam dafa génn ndeyam. Mhm. génn ko moom génn ay frère am génn ay yaayam génn ay rakkam. ñun kawal gi ñu nekk di wax dëgg yàlla ñu ngi ciy xeex la ñu mën. yi ñu mën ñu koy xeex mos naa def benn débat à benn rajo fii à la place. Mhm. ndaw si thème bi moo doon xale bu jigéen dafa nekk ci biir kër bi doomu jël la. Mhm. bàyyi jël la ëmbal wax ndax nee na mu ngi seet bi. Mhm. mën na gedd sëy bi. paa bàyyi jël la ci biir kër. bëri na ay mag yu góor yu fi tëdd ak rakk. Hmm? te bu ñu fàttee toujours l'islam la mu waxoon. Hmm. mooy bu xal nit amee juróom-ñeental bu bokkee ndey baas nañ leen tàqale ci lal. Hmm. wala nga dem si kër jóg sa doom vacance mu dem ci vacance benn kër ñu koy utiliser di ko tëddee guddi ak bëccëg. te yi cas yu mel noonu bëri nañ dama lay wax ne. combat bi nga am bu ko personnalisé. du ma ko personnalisé. xëy na teel a yàlla subhanahu wa taala. il fallait que ma joxe sama bopp comme exemple pour ñi ci ñeme. non non non dama il fallait que ma joxe sama bopp comme exemple pour ñu xam ne ça n'arrive pas qu'aux très bien comme ça après maintenant dañ koy voilà ah, c'est le combat tout le monde. très bien ouverture boobu nga def nag ouverture boobu man nga def. Mhm. tey am na ñoo xam ne ñu ngi ci biir kër yi ñoom amuñu fuñ ko jooyee. Mhm. amuñu mhm. ni tey da ngaa ubbi ne tey am na ñu bëri ñoo xam ne ñu ci seen biir kër yi ñu ngi mën wala xamul nu ñu def ba am téléphone wala am connexion bu mun laa woo. ndeysaan ndeysaan wala ba am sa numéro pour woo la. ndeysaan di liggéey ak yenn ONG yi nekk parajuriste di si yëngatu di xam yenn dossiers yu bëri yoo xam ne ne da ngay yéemu ay saax mm-hmm. ñun nag dañ lay encouragé ñu ngi Kaolack mm-hmm. ñu ngi Kaolack te li ñuy yëngatu nii wallaay la aussi nëbbatu ñu ngi liggéey sax ak ñenn ñi nga xam ne ñu ci buti le droit yi mm-hmm. ñu nekk Kaolack ñu ngi ci yëngatu te gis nga boo xoolee cas boobu femme boobu ñu violenté woon keroog ci Facebook bi boo xoolee cas boobu waa AGS def nañ ci sa liggéey bu rafet cela veut dire il faut qu'il y ait une cohésion entre les actrices ñi mm-hmm. nga xam ne ñooy yëngatu di jàppale jigéen ñi mm-hmm. il faut qu'il y ait une cohésion man mm-hmm. dama lay ñaaral bii yoon gis nga damay ñaan législature bi di ñëw jigéen ñi nañ booloo nekk benn xeex booloo nekk ndey ak bàyyi que jigéen ñi nañ ëpp assemblée nationale pour mën a di jàll yenn loi yi absolument pour di mën a jàll yenn loi pour mën di promulguer yenn loi yi absolument mais góor ñi seen yoon ñëw ci absolument seen yoon ñëw waaw waay waaw waay waaw waay ah oui. que député yi bëri ji bëri ci assemblée nationale bi pour mënti. Mm-hmm. fii di wax ay promulgué lañ ko violé xaw ma la mais amuñ jigéen ñu ko xeex. Mm-hmm. amuñ jigéen ñu ko xeex man nag lu ñu paree ci laaj bi dinaa jokkoo ak yow ci suuf. ndeysaan. parce que personnalité bi ngay incarné macha allah charisme bi ngay incarné macha allah. Mm-hmm. personnalité boobu man moo ma xëcc si yow. parce que gis nga nit. fulla ak fayda nit di ngay am fulla ak fayda mais mm-hmm. fulla fayda ji nit ñoo koy jox suñu bopp. muy il faut. tamit dëgg. Mm. tamit dëgg mm-hmm. tax mais da ngay gis femme yi parfois jigéen day taxaw di laaj benn poste sax jigéen ñi def faral góor ñi jox ko góor ñi bàyyi jigéen ñi. ndeysaan te tant que cette division là mu ngi am li ñuy wax diviser pour mieux régner looloo fi am moo tax duñ mën a am yenn. il faut qu'on soit solidaire nous les femmes. mën a am yenn loyer jëm envers ces genre de kii. Mhm. man maa ngi la suivre depuis bi ngay xeex pour que ñu ñu jox sa doom nationalité. Sénégal boobu laa la commencé. ndeysaan ndeysaan ndeysaan. waaw te mu nekk lu am njëriñ lu am importance. Mhm. lu ma rafetlu. Mhm. parce que sa doom bu amee nationalité euh, euh, ci ci xeetu papa. Mhm. nga nekk sénégalais effectivement loi boobu dafa ma intéressé parce que dafa am solo. Mhm. ndax xeexuloo ko sa bopp rek dafa am ñeneen ñoo koy xeex ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen. absolument. continuer sa combat bi keroog da ngay def live ak Farbata Dansokho. maa ngi koy suivre. maa ngi ci doon commentaire. dama rafetlu ko trop nag. waaye dama bëgg nga continuer combat bi waxuma sax dans le cadre politique. Mhm. mais politique lii mooy politique. lii mooy politique lii mooy politique. politique c'est l'art d'organiser une ay lii non non non non politique mooy lii. Mhm. xool li askan bi soxla fi askan bi amee faiblesse nga taxaw xeex jóg jël sa jëm. xoolal depuis combien de temps yaa ngi ci ci live bi. maa ngi depuis depuis treize heures trente quatorze heures. deux heures quarante war nga nelaw. war nga lekk war nga mhm. naan. Mhm. daf ma ko jaral. yaa ngi bàyyi loolu pour xeexal jigéen ñi. daf ma ko jaral tant que bàyyi leen du ma bàyyi. dénoncer affaire bi. Mhm. tout à fait waaw nañ ko dénoncer man de je suis de tout cœur avec toi. je suis à Kaolack je suis basé à Kaolack je suis parajuriste je combats ce genre de fléau je suis engagé à vos côtés. saa yi ma ñëwee Kaolack war naa dem Kédougou mais su may dem Kédougou dinaa jaar seet la. incha dinaa la jaar seet ndax waa Kédougou ba fu mu ne nii soxla nañ ma. Ah! ndeysaan. non non. non c'est les valeurs qu'on a qu'on a qu'on en veut. absolument mais ñoo bëgg jigéen ñi du xeexal jigéen ñi. waaw man nag bu laaj. du ma sama téléphone fenn na. ndeysaan maa ngi lay di la déglu te vraiment bi nga amee 3000 vues j'ai applaudi. ndeysaan parce que am na fi ay leaders yoo xamante ni ñu ci réew mi mënuñ sax am 1000 vues. ndeysaan ndeysaan donc bu occasion boobu. ndeysaan saisir ko jigéen ñi jóg ànd ak yow. ndeysaan liggéeyal la jàppale la. ndeysaan pourquoi pas sax ëllëg waxuma sax candidat maa ngi lay toll sax ne la bul wax ay candidat. c' est en deux mille vingt quatre non non non il faut ñu bañ ko c' est en deux mille vingt quatre. ndeysaan moi je fais partie de ceux qui ont reçu mais man politique safatuma. ndeysaan. bii moo ma sax. ndeysaan. ndeysaan bii moom a sax. ndeysaan bii moom a sax mooy dugal a jigéen ñi. absolument xeetal ñu sant yi. absolument xeetal les femmes yi nga di laase seen borom kër yaa ngi di laase. les violences te loolu laa bi bëri ci biir kër yi insecte bëri na ci biir kër yi ci biir kër yi te kenn du ko wax. Mm-hmm. yàlla may. ndeysaan. yàlla lu ci motul yi man lu xeebu mais je suis Merci. Je t'encourage. Merci je beaucoup. Merci. Dinaa la seet si Kaolack. Su may dem bu rek jaar fa. Su may dem bu jaar seet si la ndeysaan. Donc mu nekk suñu jigéen bu baax buy euh, lutter contre les violences faites aux femmes. Donc dina ma envoyé na ma envoyé message am si euh, si WhatsApp su la neexee nga toog am na noo xam ne soo leen toogee toog leen ndax pare gu ma de ndax ñi bugg intervenir dañoo bëgg bëri waaw fu mu ne nii moom. affaire yi moom xaaral ma wàcc lii ma wàcc lii voilà kooka su ko defee voilà nee nii moom ñu jaar yoon rek voilà donc on va essayer de prendre euh, balaa may jël keneen soo leen gisee ma jol sama bopp daf ko exemple parce que sooy xeex xeex benn xeex soo bëggee nit ñëpp fekk si la si xeex bi danga leen di wan que ça n'arrive pas qu'aux autres et que du am doom boo xam ne papam reconnaître na ko si xolom mais reconnaître ko fi ki yéen ni kaxatee juridiquement sa mairie ba du gàcce du gàcce am na ñoo xam ne dañuy bëgg am doom mënuñu am doom yàlla tànn la jox la doom comme yàlla dana jox ndam am na ñoo xam ne mënuñu am doom am ñoo xam ne su li ñu ëmb mu yàqu yàlla jox la doom doom alal la yàlla su la demee ba jox la doom danga koy toppatoo société bi nag maanaam gouvernement Sénégal et chargé d'organiser la société ndax loolu mooy politique société bi soo ko organiser dangay fexe ba xale bu judd am kayitu judd xale bu judd am kayitu judd papa ji mun kaa déclaré wala yaay ji mun kaa déclaré su fekkee papa ji daf ko rus a déclaré ndax mun nga tooñ doomu jàmbur rus kaa déclaré rus wax ko yow la walla sa maam wala sa pap wala sa yaay wala sa mag ne du yow te mu ne yow kon société sénégalaise bi dafa war a permettre yaay ji dam déclarer doomam xale bi am kayitam ñun loolu la ñu laajte mu am baay am ndey am ndey ak baay si kayit ndax am na ndey ak baay si karajooy fécondation bi si accouplement bi ba spermatozoïde góor bi couplé ak ovule jigéen bi neuf mois après xale bi judd am na ndey ak baay fekkee dafa am ndey ak baay si gene yi dafay am ndey ak baay si gene kon dafa war am ndey ak baay si këy am na ñu bari dañuy dem fay agent municipal ñu def bind leen defal leen seen kii loolu yomb na mais li gën mooy ku góor ki conscient daf ko toppatoo doomam parce que xale soo demee ba jur ko dañ koy toppatoo mais gars yi dañuy jur sànni dañuy am na ñoo xam ne dañuy déclarer seen doom ba pare abandonné ko duñ ko toppatoo am lépp am na fi mais man ma bataille personnelle mooy tous les enfants doivent être déclarés ça c'est le minimum et je porte le combat tous les enfants doivent être déclarés à l'hôpital comme aux États-Unis si biir hôpital balaa ngay génn lañ lay jox sa kayitu juddu nga wax kan moo jur sa doom ñu def ko su fekkee maintenant góor ki dafa contesté mais dafa leen test ADN bu boobaa su ñu defee test ADN si c'est pas bon ñu génne turu turu waa ji mm-hmm. loolu yomb na loolu mooy politique fexe ba xale yi ñu déclaré leen ça c'est le minimum UNICEF daf si war a jàpp parlementaire daf si war a jàpp président de la république Macky Sall nu ñu jàppalee si joxe euh, nationalité sama genre doom yi nga xam ne seen papi dañu nekk à l'étranger nekk métis ba ñu am nationalité noonu la ñuy demandé Macky mu def proposition à l'Assemblée nationale pour xale yi nga xam ne seen papi yi dañoo daw wala dañoo ruus ñu régler problème bi loolu yomb la góor yi nag affaire du leen neex parce que ñu bëri dañuy def affaire boobu di làqatu dangay tooñ doomu jàmbur ne sama maam moo ma ne dama ne du man famille bi dëgër ah jàpp seen ñàmbur làkkatu tëdd di làkkatu la tax ñuy làkkatu la tax ñuy làkkatu combat bi de dama koy mooy sama combat et c'est un combat politique c'est pas un combat seulement social c'est un combat politique pour ceux qui ont compris la politique c'est l'art de gérer la cité góor yi nga xam ne d'accord ñu si lu may wax nii je les comprends jéggal naa leen baal naa leen ak waaye man Macky Sall lay waxal moom su ko neexoon suba suba suba problème bi rek pour tout les femmes pour tout les enfants te da koy def forche parce que xale yi nekk sénégalais am na ñoo xam ne kenn si ñoom amul këyit am na ñoo xam ne amuñu këyit dañuy làkkatu rek su ñu amulee këyit nag dañuy leen di ruso yóbbu école parce que soo demee école. Euh, bulletin de naissance lañ lay laaj après xale yooyu duñu jàngi ñu nëbbaleen si kër gi ñooy bale ñooy menace ñooy nekk jàng kër gi ndax seen papa da leen refuser reconnaître c'est quoi ça j'ai envie de dire c'est quoi cette merde c'est ce que j'ai envie de dire c'est quoi cette merde d'accord il est grand temps de régler ce problème sans complexe waaw Fatoumata Danso ndeysaan mi ngi woote xaaral ma jël ko salaamaaleykum comment ça am ça danga may danga may danga may danga sotle ci xeex bi. danga may sotle ci xeex bi. danga may sotle ndeysaan si xeex bi orienté leen ma ventre fii dafa tàng ñu ngi lay déglu. naan maa ngi baal ak ndeysaan. boole baal. Euh, ndeysaan ak kay déwén déwén yi bëri. amiin di la félicité ci bébé bu bees bi nga. ubbi sali waaw ndeysaan. di la ñaanal yàlla defal jàmm suuf. amiin. ba li nga ci bëgg xoolal yàlla defal la ko. amiin amiin. mais nag émission bi dafa dafa man dafa ma laaj personnellement. ndeysaan. parce que dama xam ay nit yoo xamante ne ñu ngi koy dund. Mm-hmm. jaamuñu fenn fuñ koy jooyee. ndeysaan. billaay. ndeysaan mooy ñii dañuy ëmb dèjà ku leen ëmb lu taxaw fii dëggal bopp dem ñu dañ leen violé ñii ci biir famille bi sax kenn ci famille bi mooy def bu bon boobu sutura sutura bi yaa ma ko gën a xam africain bi dangar dangar lépp nag jigéen lay dalaa man côté boobu moo ma gën a dëkk. Mm-hmm. des fois. Mm-hmm. jaaw def. bu bëri ci kaw jigéen lañ koy teg. ndeysaan pourquoi. ndeysaan première question bi. ndeysaan. ndeysaan. ñu ne inter ñu doon intervenir yëpp bi ma paree sama direct bi même laa nekk di déglu. Mm-hmm. dama foofu je pas sama xol bi dafa dafa dafa métti quoi. ndeysaan dafa métti. ndeysaan. nga wuti non seulement nga nit ki def na lu bon. Mm-hmm. mooy doroxal la mm-hmm. nga wus nga bëgg a defaral sa doom kayit yow ñu jigéen non seulement amoo nguur a taxaw ne la mm-hmm. nga bëgg a def kayit yi ñu ne la doo ko defaree fii comme nombre de enfants ñi traîné au biir ci biir Sénégal ñu mënut a am extrait de naissance ba xam loolu ndeele bu année scolaire bi buy ñëw buy fii ñu ne école bi day ñëw nga dem tax ndeysaan maam yi di tënk ci yaay di tënk ci loxo. Mhm. xale mhm. ay xale. Mhm. bu dem ba jur extrait de naissance yi ñu ne la foog góor ñoo taxaw nangu ko ne moom ba jur xale bi ci ut xale bi. Sénégal ñu xoolaat dem bu baax. surtout xale yi bañ leen ber. te ñun lañ bokk ah. bokk. te bu subaa ngeen xamul doom sa le futur président je ne sais pas deux mille xaw ma combien. Mhm. ci xale yooyu lay jógee. te muy dëgg c'est jamais. Mhm. donc am nañu droit góor am na droit nga def say liggéey dem ba pare dem taxaw fële fëgg ndaxte mhm. góor moo aay ci lu bëri. góor mun na dugg ci ci ni doomu daal génn génn yaramam mais déedéet. taxaw fee. seetal boppam. mais ñun jigéen mënuñu ko parce que day ëmb ci ñun la biir bi di feeñ. ci ñun la ñuy naan diw wasin na. ci ñun la ñuy naan diw la mu ngi nampal. ci doomi diw la. bàyyi jigéen yi tamit ñi nga xamante ne que ne ñu ngi dund façon bu mel noonu comme ñi ñi ñuy violé mhm. ñi nga xamante ne que ne ñu ngi def loolu ak loolu góor yi di ñëw di sëy ak jël soxna mhm. sëy moom quelque temps sa yow ça fait plus de trois mois ça mhm. fait trois mois déggantewuñu mënul doon sama biir ok bàyyi jigéen ñi jël seen responsabilité ñuy jël seen doom yi même mu doon nekk di attribuer seen sant bopp. Mhm. ñu bàyyi leen ñu ñu accepté leen loolu. Mhm. Mhm. parce que nguur yi di daw ñoo fi gën a bëri. nguur yi di assumé. absolument man loolu laa bëggoon le président Macky Sall bu dee mu lay dëkk. balaa kenn naa di jeex le président Ousmane Sonko ñoo jël relais bi. nga commencé di béykat yi commencé di ñu naan bi. mairie yi commencé di defaraat. bàyyi jigéen ñi taxaw jël responsabilité. ci seen doom yi. dafa nekk seen doom yi à la base de. góor yooyu nga xamante ne dañuy ñëw def la ñuy def ba pare ne des teg lañ ci mm-hmm. wala koo ci jàpp mu ne la lu mat mm-hmm. te ne dara mm-hmm. ko am place pour forcer ñooñu ñu ñëw taxaw reconnaître te autorité du dara du dara te ADN du dara bala loolu boo yor lay xaalis mënoo ci uuf waaw test d'ADN dafa cher dafa cher te du fépp ko mun a defee ku ko teg Casamance wala ci àll yi xonq amul lu mu mun a jëlee ay junni junni ne day dem ba ay Dakar. Mhm. ay test sa ADN di dugg tribunal dugg kenn fay génn jox la papier bi ngay jël pour dem passer test ADN boobu. jël avocat jël avocat. jël avocat teg ci. Mhm. c'est trop. Mhm. trop de charge. loolu yëpp kan la ci kan la jigéen. jigéen bi boo koy ñëw si biir. ay waay neel Macky Sall gaaw Macky. bu dee yaa ngi dëgg. combat bii man na ci ànd ak si sa la. et Amazon ne bu soobee yàlla encore sister t'as bien fait d'ouvrir cette porte là ma dama la ciy fekk si. prochaine fois man tamit dama koy jooy. ci sama prochain laay. macha allah. kaw ma kii bu dee yaa ngi may dëgg la. madame la première dame. Mhm. madame Faye Sall. ndeysaan jàppale ñu ci lii fekk ci sa sister Ndeye la. lii ñu def ñu laal ñun yëpp. ndeysaan jigéen bu ci nekk boo boo xoolee sa biir famille am na ku ci ku nekk di dund la même chose. ndeysaan famille bu mhm. mu nekk lu rafet waay. participation mu nekk lu rafet. di la jër encore loxo. jërëjëf jërëjëf jërëjëf bu baax nga day sànni. bu baax nga day sànni day sànni day sànni voilà donc loolu jigéen ñëpp jóg nañu day sànni. Mhm. jigéen ñëpp jóg nañu mu nekk loo xam dafa am solo ndax lii kër bu nekk am na fa te du gàcce ñu bokkaa def gàcce nag senegal comme que dal na Ndella Madior mun na dal ku nekk man de VIP la te dal na ma VIP la dal na ma kon ku mu dal bu leen ko def gàcce xeex leen mënal am seen autonomie financière waaw xeex leen ngeen am seen autonomie financière ma jël keneen kii salaamaaleykum allo salaamaaleykum allo maaleykum salaam. yaa ngi wootee Sénégal. Comment allez-vous? Vous êtes en direct? Vous êtes en direct? Ndeysaan dafa am problème réseau. Vous êtes en direct, allez-y. Oh. Donc dina ñëwaat. Donc duñu def lu dul euh, jëlaat keneen saan donc émission bi nekk émission boo xam ne dafa toucher toutes les femmes Sénégal j'ai touché euh, toutes les femmes une belle photo une belle femme qui qui entre là salaamaaleykum. allo maaleykum salaam. maa ngi si musóor bi. allo. ma ne maa ngi si musóor bi. <laughs> merci. <laughs> merci allo. ñu ngi lay déglu vous êtes en direct. juste ñëw. Euh, mhm. euh, pour joxe sama témoignage. ndeysaan. Euh, initiative bi parce que nit ñi nga xamante ni ñun ñooy dund lii peut-être dañoo amul gémmiñ buñ koy waxee. Mhm. et toi ñëpp xam nañ ni moom. tu es, tu es la voix des, femmes. Mhm. Et par toi, euh, on, fait passer aujourd'hui ce message-là. C'est ça. Monaco parce que j'ai, avec une personne qui était issue d'une famille, euh, bon, tout le monde connaît les familles libanaises, etc. etc. pas acceptée. Mm-hmm. Donc, euh, euh moi, j'ai vécu ça donc, avec cette personne. Euh, et après, ensuite, par la suite, la famille Euh, s'y est opposée euh, parce que je pas, disons, de, de mhm. entre guillemets, mhm. euh, pour, résumer la situation. Mhm. Donc, il s'est retrouvé face à une famille. Bon, je ne sais pas, c'est pas pour. Parce qu'on on, dit que les, hommes sont, des lâches, etc., etc. Il subissent des pressions, il faut savoir ça. moi, par exemple, ça a été mon cas. Au départ, il n'était pas. Il était pas maanaam ni àndoon euh, na si au mhm. début. Mhm. et c'est pour ça d'ailleurs que que que qu'on a décidé de le garder de garder l'enfant et cetera. Mhm. donc ñu dem ba si digg bi. donc vu que la famille elle n'était pas d'accord la famille lui a posé des pressions vraiment dures. Et j'ai, j'ai été là, donc j'ai été témoin de ça, j'ai vu toutes les pressions qu'on a, qu'on a posées sur lui jusqu'à ce que lui, il, il fasse votre face en fait. Okay. Et c'est là où, genre, moi, j'ai, j'ai vu la lâcheté en fait. Mm-hmm. Parce que je me dis que malgré tout, Euh, bon, sa, famille, c'est vrai que la famille, c'est sacré et tout ça, mais il y a un moment où il faut être responsable. Mm-hmm. Mm-hmm. Il faut savoir tenir tête. et être, euh, qu'on est responsable et qu'on peut gérer aussi sa propre famille. Absolument. Donc, euh, côté Bob. Mm-hmm. Et aussi au niveau des lois, parce que moi, quand il eu ce souci-là et que j'ai voulu faire reconnaître mon fils, dans ma contexte problème, Bounek. Like déjà, c'était impossible. Je suis allée au niveau de l'AGS, j'ai reçu beaucoup d'aide de, de l'AGS, mm -hmm. euh, mais malheureusement, ça n'a abouti à rien parce que les, les, les, les, lois qui sont au Sénégal sont faites comme ça. Absolument. Donc vraiment, Euh, c'est pour la raison pour laquelle que man maa ngi maa ngi sa ginnaaw pour que puisse mettre en place ces projets de loi parce que les, les histoires sont différentes. Mm-hmm. Après j'entends beaucoup dans les commentaires les gens qui parlent mais il faut passer au-delà de l'aspect sexuel ce n'est pas une histoire de problème sexuel en fait. Parce que les gens les gens dañuy dañuy limité wu ci loolu noonu naan la. Euh, tu, tu entends des commentaires du genre waaw yaa joxe sa bopp yaa nangam sa c'est pas ça. c'est pas ça absolument parce que y a y a y a différents y a différentes histoires. Okay. y a même des histoires des gens qui étaient mariés où le mari a fait abandon de domicile et cetera il est parti la femme s'est retrouvée seule avec des enfants. Absolument. à gérer. Absolument. il y a, il y a toute histoire. Donc, il ne faut pas qu'on se limite juste à cette histoire de non, histoire sexuelle. C'est au-delà de ça. C'est au-delà de ça. Il faut que les gens apprennent à réfléchir et à aller au-delà de ça. Voilà, moi, c'est vraiment, c'était mon coup de gueule par rapport à ça. Et vraiment, je suis derrière toi. Juste pour dire ça voilà ñu ngi lay jàppale bu baax mm-hmm. lépp luñ ci mën a def pour projet de loi aboutir. inchallah absolument absolument absolument merci d'avoir participé et on va terminer la discussion à notre antenne. merci. Merci, beaucoup. Voilà, donc euh, beaucoup de témoignages, je vais pas, j'ai même pas le droit d'arrêter. Parce que li nekk ci jigéen yi wax, il faut ñu génne ko. Donc on va on va les écouter. On va les écouter, c'est tout simplement ça. Salam kii mi ngi woote salaamaaleykum pas am problème connexion salaamaaleykum salaamaaleykum ah c'est dommage j'ai pas envie. allo salaamaaleykum. maaleykum salaam. yaa ngi woote fan. Euh, maa ngi wootee depuis euh, États-Unis. ndeysaan ñu ngi lay déglu. allez madame allez-y lay déglu. waa léegi euh, man sama participation lenn la woon parce que cas nekk mën na bañ a bokk. Mhm. léegi euh, am na ñoo xam ne seen cas du question comme par exemple seen papa seen ak seen yaay yi euh, jubóowuñ comme par exemple euh, mu ëmbal wala genre yu demee ki noonu mais am na ñoo xam ne seen papa ak seen yaay dañu séparé wu mm-hmm. yaa ngi dégg mais ñu dem ba seen papa ni mu ni mu euh, rejeté seen yaay mm-hmm. par rapport ak divorce bi mm-hmm. léegi nag daal di indi tam mu rejeté waale doom yi loolu tamit dafa am léegi euh, loolu aussi yeneen cas yoo xamante ne si bokk sax ak ñi nga xam ne dañoo ëmbal seen yaay wala yu demee ni ki noonu nga baal ma ci kàddu gi parce que lu métti la loo xam ne nit ñaa koy dund tey. tout à fait. nga xam ne su sañoon tey papaam moo ko jur ci biiram ci ci fardas yàlla ak sunnas Muhammad mhm. ci kaw mariage. mais mënuñoo wax ak seen papa wala ñu euh, déggante ak seen papa wala ñu am benn relation ak seen papa te kenn xamul lan moo tax. Mhm. juste parce que dafa rejeté euh, par dafa rejeté euh, soxnaam wala seen yaay. Mhm. warul tax tamit mu rejeté waale doom te loolu tamit kaala bu ñun. nit ñi bëri di dund. absolument. Mm-hmm. loolu tamit laa bëggoon soo ci mën a indee soo ci mënee indi yeneen waxtaan. Mm-hmm. yeneen euh, mu gën mm-hmm. waaw ñu bëri ñu koy dund. loolu rek laa bëggoon participer dama bëggoon taw balaa ñuy reconnaître sama <laughs> on va continuer la on va continuer la discussion en hors antenne mu nekk xale yu baax ndeysaan il faut oser en parler. il faut oser en parler gis nga problème dañ koy songu kenn du ko raay mun nga muñ ay at mais soo waree dóor mu daanu da ngay dóor mu daanu waaw pour trouver une solution définitive pour tout le monde comme a la dame de Kaolack c'est pas seulement Sada Kane mais il y a de Sada Kane dans les maisons comme il y de Sada Kane dans les maisons eh bien il faut que le président Macky Sall règle les cas Sada c'est le minimum que le président de la à l'Assemblée nationale modifier cette loi pour permettre à ces enfants qui sont nés et qui sont sénégalais d'être sénégalais à part entière avec un extrait de naissance où figure le nom du père et le nom de la mère affaire prise en charge yooyu yëpp amul problème jigéen dañu am jom ku am doom jur ko dañ koy dañ koy dundal ñi nga xam ne nag dañoo ñàkk jom boo xam ne jox seen doom meew sax duñ ko def amul problème jigéen yi mun nañ ko def kon di ñu def lu dul jëlaat euh, keneen salaamaaleykum salaamaaleykum yëkkati kàddu bi waa ngi woote depuis Sénégal waaw lay déglu voilà merci yëgal wax nga ba dindi haut bi nga wax bu faa bu baax si kii bi ci téléphone bi comme ça mu fort voilà waaw nan lay dégg d'abord Ndeye félicité la pour li ngay def nii. merci merci beaucoup. parce que beaucoup de courage. pour le faire. absolument. parce que beaucoup manque actuellement. il y a ça et puis man je comprends comment hein je le comprends sur toutes les formes. parce que moi-même ayant été victime moi-même ayant entendu. ce genre d'histoire dans ma propre société donc. xam naa ko du tey la ma retrouvé. mais. Euh, góor ñi laa bëggoon éveillé tuuti rek. parce que lii du combat wu jigéen kenn. pour son c'est vrai que seen genre la ñuy wax. donc normal que ça les touche. absolument me ils sont pas tous comme ça. absolument góor ñi nga xamante ne xam nañ gëdd jigéen. di ko def. nekk mhm. ay góor yu baax. Mhm. ñooñu mën ak seen ay jabar. Mhm. ku ci nekk sa am nga sœur am nga yaay. am nga xarit. absolument respecté moom nekk sa jëkkër respecté la. wala lii du yoon. wala nga ñëw sax nekk sa papa yi doomu xel. wala ñoo sax ñu takk jigéen ñoo xamante ni sëy nañ ba tax parce que ñoom dañu leen yëram gis ni que dañuy soxla ku leen jàppale ak seen njaboot ñoo ñoo du door am na. ñu doon wóor ko xaw xaw fekk. c'est pas juste des trucs c'est pas parce que erreur ni ko koy def. et pour man revenir aussi ci benn affaire du carte bi may gis très souvent sur les commentaires. muy la partie jigéen dafa war a téye boppam dëgg la. Mhm. yàlla moo ko santaane. dañuy fàtte góor yi dañuy fàtte góor yi violé. dañoo fàtte góor yi violé. Mhm. mais loolu c'est un péché d'accord mais surtout sa borom. Mhm. après responsabilité bi def ci péché bu góor bi je pense que pas seul. bu jigéen bi ni mu péché ci góor si noonu la péché. waaye ngir sàmm mm-hmm. njaboot dañ ko avorté responsable nangu ko gisal ko reconnaître boor bi bu boobaa yàlla suñu borom dina la yërëm ndax fekk boobu nga defoon ko ci defal nga ko ci lu baax pourquoi on va rester sur ça on n'arrive même pas en fait à comprendre comme le mal bi nekk c'est vraiment dommage en fait absolument et bind naa le message ndeysaan c'est pas c'est un combat très fort te yàlla du fekk doomu aadama du ma antal absolument man de antal naa bi mu defee nga am même expérience defaat nga nekk maire Madior Diouf ba ñëpp mhm. nga nekk koo xamante ni boo waxee ñëpp dégg la. Mhm. xëy tey vingt sept ans après dina toll wax loolu ci biir xëy dafa jàpp ne da mhm. nga pare. ko pare na pare na nangu naa ni gëm naa ni yàlla suñu borom moo jaarale ci yow boo waxtaanee am ñoo xamante ne seen aada dina ci faj. am ñu te faj bi di jigéen Mm-hmm. mais góor ñi bu ñu yeewoo faju yenn erreur yi du leen dale ci donc c'est toute mm-hmm. la société en fait ñu góor ñu jigéen bu dee lu yàlla nangu la yàlla ko yàlla moo teg amiin amiin amiin ndeysaan ci loolu amul góor amul jigéen parce que gënuñu leen amiin lu ñu nekk nekk jigéen di saa si tam góor ñi ñu ñu wax ba gën leen yàlla mu ñu dañu ba pare yàlla ñu ñëpp amul ci xaj ak xeet du combat wu jigéen góor moo war a moo mel ni jigéen non yëpp ak sexe foofu ñu de sexe fête mm-hmm. absolument absolument mooy am. am na dignité. accès bi ngay am la góor du am tout merci merci Ndeysaan. merci merci elles sont toutes gentilles Ndeysaan c'est le combat de toutes les femmes.

nekk école. en mhm. classe bu jeex. Mhm. nekk ci seen adolescence. ñu mhm. gisante ak góor. ñu bëggante. ngeen ci am intention yu baax. pour sëy te yàlla tax. doonte teg ngeen ay góor yi dafa neex. mais alors que góor gi lenn rek moo ko doon tax ñoom ci mooy que ne bi ngeen di ànd duggoon la léegi ci yow mais que amu ko donc benn choix la am.

parents ak famille yëpp dañuy jël responsabilité yëpp ci seen jëkkër ba ba tax bu dellu see ba ay loxo soo ko toog ba sa wax la def ñu wax sa ñoom doo xam noo leen nekkee doo xam luy dundee sa doom yi ko war lépp doo gis ku la jàppale te moo leen gor bu soo tàllal sa loxo te mu la yëri diine pour pour suuf pour ñoom. instant bi baax na ci damay wax pour ci jigéen ñi nga xamante ne ñoom loolu muy leen door a dal. ndax man fi ma jaar sax na ne ay pëgg jaay sax gàddu naa ko di ko jaay. ndeysaan. mais tey yéen a sant yàlla. ndax suñu commerce bi ñu ciy. loolu naaj na naaj bi. yàlla mu ngi ci jàppale ko. mais en tout cas daal man je te combat bi lu ñu war a xeex doom bàyyi ko dañu war a arrêté parce que am na ñoo xam te ni état bi ñu ñu am seen beneen jabar nekk ak seen ay famille ah toppatoo seen doom yooyu bàyyi la ak sa doom te ëllëg bu ñu ko doon donné en mariage yu am grande ànd ak seen famille ñëw naan la yow yaay moo ko def yow yaay papa ji yaa ko jur alors que jur na ko mais lii la wax ci moom defoo ko donc ñun moom ñu ngi sa gannaaw te xam naa ne moo waxee ak xolo moo tax ko ñu baax di ko defee ak leer mais ñu déggal bu baax ci tànk yi ñu fa gannaaw ci après incha allah dinañ déggante man moom maa ngi taxaw benn jàppale jeunes yi nga xamante ne jël nañ leen bàyyi leen sànni leen ay doom donc bu leen yàqalee seen avenir te euh, waroon nañ gën a góorgóorlu ci seen école ak ay expérience fii université mais chance boobu amuñu ko mhm. yow amoon nga maa joon jur mais ñu amuñu ko ndeysaan merci merci effectivement fu mu daanelee fa lay wax pour rendre hommage à mon père Madior effectivement man amoon naa Madior Diouf amoon naa Juma fay amoon naa toute la famille mais nag dañoo réyoon ñoom tamit ñu toog rek di xaar pour ñu ñëw baalu leen ak image bu ma gën a marqué mooy jour bi Madior Diouf si boppam jële Sara indi ko tribunal Sada daw parce que départ moom père dafa doon gént mënul imaginer Sada Kane bii nga xam ne moom mooy conseiller am si émission regardam moo biiral doomam tooñ doomam yooyu vais utiliser tous les termes parce que ñoo xam ne biiral la nga xam ñi nga xam tooñ bi ma demee ba xam ne kii Sada moo ko jur mu téye doomam avec dignité yéeg si marche tribunal ñépp xam nañu tribunal ancien tribunal mu mel ñu ñëw toog Boucounta Diallo bi défendre woon Sada Kane à l'époque désisté ne du défendre Sada Kane si lii parce que xamu woon sa lii lañ koy wooye moom du dugg si yëfu ñàkk fayda da ngeen wax ji image am sama papa chaque matin avec dignité moo may jël man fekk maa ngi nàmpal sama doom su ma ko nàmpalee ba pare bàyyi kook jànq bi ak biberon bi ñu yóbbu ma boobu maa ngi ndeysaan stage cardiologie Dantec 13 heures mon père vient me prendre yóbbu ma kër ga ma nàmpa sama doom 14 heures 30 on part à la fac j'avais ma job Diouf ju ma fay di ñu jàppale si couche yi jàppale parce que xale bi il faut mu nekk si ambiance familiale donc j'ai eu beaucoup de chance J'ai eu de chance. Tout le monde n'a pas Major, tout le monde n'a pas juma Faye. Parce que am na a xam ne qui ont rejeté seen famille. am na ñoo xam ne qui ont dàq seen famille. te loolu du lu rafet problème su amee si famille góor ñi dañuy bàyyi di wax da waroon téye sa bopp am na ñu ñuy violé am na ñoo xam ne dañ fekk si néeg ñëw tëdd seen kaw bu ma tax a wax ku ñàkk jom rek mooy ne dangeen war a téye seen bopp xam nga da ngeen ñàkk jom ñu si bari si yéen góor ñi yaay waxal ngeen ñàkk jom man maa ngi xeexal jigéen yi quatre-vingt-dix pour cent des góor da ngeen ñàkk jom da ngeen jom maa ko wax ndax soo leen amoon jom doo leen siif jigéen soo leen amoon dom doo leen dugg si benn néeg fekk nit gi nelaw ngeen daanu si kawam. soo leen amoon jom doo leen siif jigéen si bis yi muy yekkataan si bis yi man je suis une ancienne canadienne seen sexe yi ngeen doon exhiber si clôture kani ngi sa jot Fitzgerald Kennedy ñàkk jom ngeen may déglu ku nekk mi ngi ne yàlla bu ma tudd soo leen may provoqué ma tudd seen tur yéen ñi nekk si gouvernement bi di jur di sànni di biiral soo leen may provoqué ma tudd seen tur soo leen may provoqué rek ma tudd seen tur yéen ñiy biira seen bureau soo leen may provoqué ma tudd seen tur yéen ñiy couché nit yi seen biro si si loo waxoon na ko bàyyi leen di touché di tëdd ak jigéenu jigéen yi femme marie yi pour gis Macky Sall bàyyi leen di chantage il a raison si si loo billaahi soo leen may provoqué rek ma toroxal leen tudd seen tur du dara si ma dara kon bàyyi leen seen commentaire yu ñàkk jom yi ci réseaux sociaux yi ngeen di faire faire di wax yéen a war a téye seen bopp te nekk fi di siif jigéen ñi di chantage jigéen ñi di tëddee jigéen ñi di violer jigéen ñi ñàkk ko heureusement que ma fa am àddina tukki dafa am góor yu baax heureusement am na góor yu baax ñoo xam ne dañuy defar rek am na ñoo xam ne dañoo baax du ñuy yàq du ñuy yëkkataan jigéen du ñu violer jigéen. dañuy defar jigéen fu mu ñaawee ñu ñëw defar ko heureusement kon de su loolu su amuloon kon fi ñu jëm je porterai ce combat à visage découvert ku ma si découragé soo jàkkaarloog man dinaa la mbaj li may gis ressenti sama xol bii dund ko 27 ans avec dignité kenn musuma dégg ma wax kenn journaliste yi di ma provoqué ku ma jàkkaarloo di ma wax ay wot dinaa la mbaj parce que yéen ñii yabaate la ce problème on va réglé régler à l'Assemblée nationale lañ ko mën a régler kese fi nga xam ne góor ñi au départ ñoo def benn loi sénégalaise di favoriser seeni bopp ana jigéen ñi jóg leen ñu yëngu ana jigéen ñi jóg leen yëngu yàlla def ma ko man man nangu ko santé ko ko xam ne mun naa porter combat bi te dinaa ko porter ba ñu régler problème bi te problème bi dañ koy régler Macky Sall su ko réglé wulee man mii may nekk présidente réglé ko dégg ngeen wax ji su ko réglé wulee man may nekk présidente de la République du Sénégal réglé ko maa ngi dégg à distance chauffeurs yi nee naa leen gas leen seen kàmb te ngeen dugg si biir. gas leen seen kàmb te ngeen dugg si biir chauffeur yi gas leen seen kàmb j'ai dit que j'ai déposé les armes ça veut pas dire que je me suis calmée ah <laughs> je provoque je réponds pas aux provocations d'insultes mais qui s'y frotte s'y pique déposer les armes bu ma saaga baal naa la mais problème bu am te concerne jigéen ñi dinaa ko xeex ñu jëlaat keneen parce que gars yaa ngi woote ndeysaan musuma gis lii nit yaa ngi woote rek ndeysaan salaamaaleykum vous êtes en direct madame. bonjour madame Diouf. comment allez-vous. Euh, eh je suis en pleine forme. Dakar, j'habite à Oui. Alors, je vous appelle pour vous féliciter doublement. Doublement parce qu'il euh, faut avoir un d'acier mhm. euh, pour prêter le flanc à ces opprimés. Cette... Mm -hmm. je vous félicite doublement parce qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup de choses à dire, mais je vais quand même euh, souligner le fait que vous ayez choisi de garder euh, cet enfant. Dans ce pays où nous vivons, au Sénégal, l'hypocrisie sévit. Mm -hmm. Et mhm. malheureusement, le Gatchinga là-bas, tout le monde le connaît. Nos mm -hmm. mères nous ont créé le Gatchinga là-bas. Mm -hmm. Le, euh, oui. en effectivement, interdite, mhm. mais nous vivons une religion tolérance. Mhm. Et quand on en vient aux solutions, machallah, mhm. la religion était tolérante. Donc il ne faut pas indexer ces femmes qui ont eu une progéniture, qui ont eu la chance d'avoir des enfants et qui n'ont pas été euh, dans l'union, dans le mariage. Et je vous félicite pour ça, parce que vous avez choisi de garder votre fille. Et Toubarkallah, machallah, elle en, est, vivante, elle est enthousiaste, Donc voilà à qui la faute, il faut seul laisser Allah juger. Ça, D'autre part, les femmes qui ont subi la pression sociale mhm. par rapport à l'islam, à la religion, Mmh. ba tax ne ñoom yi parce que ce mhm. fléau touche aussi les femmes. Mhm. Elles ont renoncé à leurs enfants, elles ont avorté. yàq seen seen seen appareil génital. ba tey jii ñu dugg si biir sëy dinañ gàcce ngalaama on est on les connaît toutes ces femmes là. donc il faut arrêter. le Sénégal est hypocrite. Mhm. on connaît toutes ces femmes qui disent gàcce ngalaama alors que la fornication a précédé. seen doom boo leen yore. yàlla nattu leen ci benn mbir. na ngeen xam ne yàlla jooju mës a jeex. te du mës a jeex. te kii maye moom la donc bu fekkee daf ci. génnee alalam sans le mariage ngeen war ko mun a seetee yàlla xaar ba ngeen dem barsax moom mu jugé. Mhm. il faut pas être calife à la place du calife. Mhm. donc je vous félicite doublement. il être d'un esprit serein. Mhm. d'un esprit fort un esprit d'acier pour pouvoir mener ce combat que vous êtes en train de mener à l'heure actuelle. Voilà, et, et ça m'a touchée. J'ai beaucoup d'autres débats, beaucoup d'autres choses à en redire, mais depuis tout à l'heure, j'appelle et je sais que vous êtes censé être euh, busy. Mm -hmm. Donc, Inch'Allah, je rappellerai promptement, Inch'Allah. Merci d'avoir participé, merci, c'est très gentil. Voilà, donc, mon ben intervention, Yaram Deysan. Mm-hmm. Donc, il faut prouver que ça touche toutes les femmes sénégalaises, les femmes africaines. Deysan, il faut toucher Bouba, Khabah, yaa ngi woote donc mu nekk mu jël euh, keneen salaamaaleykum. allo. salaamaaleykum. ça va soxna si. ça très bien merci fay woote. ma bëggoon naa participer ci direct bi. ñu ngi lay déglu. ñu ngi lay déglu bu baax yaa ngi en direct. maa ngi en direct. waaw soxna Ndéla. Euh, waaw maa ngi lay déglu. maa ngi lay bu baax. nee na ziar bu wër. di la wax ne yow moom jigéen ñëpp ñoo war a topp sa ginnaaw Sénégal. ndeysaan ndeysaan. maag yow nag xëy na bokkuñu parti nag man ci Idrissa laa. ndeysaan. mais lii nii te soxna kilifa laa. Mhm. mais li ngay wax ne dafa am solo trop trop trop. ndeysaan. nit ñi bu ñu leen déglu que ne Ndella day wax pour wax ne wala Ndella day wax lu ko neex. Mhm. wala Ndella dafay pànk wala dara. Mhm. mais yow jigéen ñi war a jàpp taxaw sa ginnaaw jàppale la. seetaan nii mais dama ma man sa tàmm ma di. mais yow yàlla la yàlla defal jàmm. yàlla baax baax a baax. Mm-hmm, mm-hmm. parce que da nga fi taxaw pour jigéen ñi. man daal mm-hmm. sama sañoon élection yi di ñëw incha allah. ndeysaan. taxawal jigéen yëpp jàppale bu taxaw ci ginnaaw kenn. ndeysaan. bu taxaw ci ginnaaw kenn. ndeysaan. parce que lii ngay def dëkk la yaa ngi wax loo xamante ni yëpp dëkk la. dëkk bi dafa bëri ay baadoola yoo xam ne dañoo yor xaalis. Mm-hmm. Mm-hmm. di def lu leen neex. Mm-hmm. te dara yi dëgg nekkul ci. ku mel ni yow nag dañ laa war a jàppale. ndeysaan ndeysaan. man nag incha allah rabbi. ndeysaan. am naa fu mu féete. waaye dinaa la liggéeyal ci benn côté boo xamante ne. ndeysaan yaa baax waay ndeysaan. voilà maa ngi lay gërëm di la sant. ndeysaan yaa baax ndeysaan. wax ne merci beaucoup kontaan naa. ndeysaan ndeysaan. merci beaucoup ñu déggante si suuf en hors antenne. jigéen dañu baax jigéen dañuy baax day am ay réeroo rek parfois vraiment mais jigéen dañuy baax ndeysaan ndax problème bi ñépp la concerné salaamaaleykum. allo. comment ça la toute belle. ça va bien. vous êtes en direct oui vous êtes en direct. Ah, féliciter d'abord. Parce que euh, femme valeureuse, mhm. une femme. Et vous. Euh, personnellement, je n'ai pas été touchée par, euh, la reconnaissance mhm. pour mon père qui n'est plus. Mhm. Toute sa vie, il, a souffert de tristesse. d'abord mhm. allô. oui je vous écoute oui ndeysaan. allez-y vous êtes en direct allez-y. oui allez-y vous êtes en direct. Mhm. je parle pour mon père. je mhm. parle pour mon père qui n'est plus de ce monde yal na ko Yàlla yërëm. ndeysaan. toute sa vie il a dû euh, souffrir de de de, de, de l'absence de son père. Parce que comme vous l'avez dit au départ, mm -hmm. il était reconnu dans le cœur. Mm -hmm. Tout le mm-hmm. monde savait qu'il était le fils d'hôtel. Absolument. Mais sur les papiers, non. Absolument. Et malgré tout, malgré le fait qu'il ait fondé une famille, qu'il ait eu mm-hmm. des enfants, mm -hmm. il y avait ce manque-là. Absolument. Il y avait quelque chose qui manquait. Parce que je crois que chaque enfant mm-hmm. a droit à son identité. Chaque être humain a droit à une identité. Absolument. Et on ne peut pas refuser ça à un être humain. Je trouve ça lâche, lâche. et méchant. Mmh. Méchant, méchant. Très méchant. Donc mmh. je suis vraiment, euh, je suis vraiment de tout cœur avec vous. Mais et ça. moi, ce que je souhaiterais vraiment, c'est que toutes les femmes, quelles que soient nos différences, mmh. que l'on debout comme un seul être mhm. pour combattre cela. Absolument. C'est tout. c'était tellement difficile à chaque parce que vous savez, avant sur les cartes d'identité, mhm. sur les cartes d'identité, on inscrivait le, le nom du père nom de la mère et, de la mère. Et malheureusement, à la place du nom du père, il y avait l'astérix. Oui. Le fameux, la fameuse petite étoile là. Donc c'était difficile à chaque fois qu'il devait présenter son identité mm -hmm. devant tout le monde, tout le monde qu'il n'avait pas de père. Vous mm-hmm. voyez un peu Terrible. Donc je suis de tout avec vous et vraiment que l'on puisse euh, ensemble, comme femmes, hein, mm-hmm. ce combat, mm-hmm. vraiment. Donc je, vous remercie et excusez je ne suis pas très, <laughs> bonne en, communication. Très bien. Euh, je vous remercie. vous avez tout dit merci voilà. merci d'avoir participé. bonne continuation. merci mu am keneen kuy wootee depuis les États-Unis ñu jël ko salaamaaleykum. waaleykum salaam. le premier homme à participer à l'émission. <laughs> le premier homme à participer à l'émission. waaw bon vraiment je suis euh, très content de lii nga def parce que je t'encourage et je te félicite. Uh-huh. euh, ok. écoute euh, man yàlla dafa dogal ci euh, psychologue la euh, ci loolu laay liggéey. tout à fait mooy yàgg ma yàgg am ay jigéen yu bëri ñoo xam ne nos femmes souffrent dans nos sociétés. oui. elles souffrent dans les couples elles souffrent en dehors tout à fait. mais situation bii ngay wax nii man dafa am témoignage bu ci bëgg a parce que bi ma ñëwee fii au Canada liggéey. Mhm. ma doon liggéey ak benn femme benn femme tubaab. Mhm. doom ak benn sénégalais bu si mhm. mais dafa dellu au Sénégal mhm. reconnaître doom mhm. doom yi léegi am na presque trente sept ans trente huit am na doom ji jigéen la am na doom donc ak mën naa ne paa bi am na sët bi ma ñëwee fii may waxtaan ak moom sama collègue la mu ne ma c'est un sénégalais wax may affaire yëpp man bi ma demee vacances en deux mille Sène j'ai fait mes investigations. Mm-hmm. ba jot ko. Mm-hmm. ba ba ba ba gis ay mbokkam. Mm-hmm. ay mbokkam ils m'ont dit que ni waa ji léegi c'est un c'est un responsable seen seen village léegi moom moo fay imam ba moom mooy jiite nangam nangam bu ko ay waa gërëm xamee dina fi génn fi ma ne leen hey xam ngeen mbir mi lan la. lii c'est de la lâcheté c'est de la pure lâcheté. absolument. am doom bàyyi ci naaw c'est de la pure lâcheté. Parce que quoi qu'il en soit, gis nga xale. tout enfant est Absolument. nit mënoo ne da nga bëgg yàlla wala da nga dul wala pare nga am doom wóolu ne am nga doom nga bàyyi ko ci naaw. moi mmh. j'ai travaillé en Casamance parce que foofu laa commencé. Mmh. j'ai ay doom dem dellu seen bopp kenn xamul ne am nañu ay doom foofu. Mmh. absolument mm-hmm. mais malheureusement ça se retourne contre contre contre te mënuma la wax sax les conséquences psychosociales les conséquences psychologiques allô oui oui oui allez-y allez-y allez-y c'est qu'il y a trop d'appels moo tax appels yi ñooy couper affaire Mm-hmm. mais les conséquences sont terribles au niveau psychologique au niveau au niveau psychosocial pour ces personnes là yi nga xam ni seen ay parents dañu dañu maanaam problème d'identité la ñuy. Mm-hmm. Mm-hmm. keroog keroog keroog sama xol dafa tooy bi ma sa doom bi muy wax ne que il elle aime elle son père. ndeysaan que man loolu si nit ñi nit nga sa yaram di daw sax. vraiment wax dëgg neex yàlla ak lu ci am war sa yaram war na daw nga dellu vers ton enfant. waaw ça mais nag je te félicite et puis yàlla nelawul mm-hmm. man je te félicite beaucoup parce que tu as eu le courage ton enfant et de l'élever absolument yar ko mm-hmm. donc vraiment euh, je tenais vraiment à à à à entrer pour te pour te féliciter pour mm-hmm. dëgg neex yàlla et puis et euh, il faut qu'ils arrêtent d'être lâches. Absolument. vraiment. merci nga nuyu ñu Canada yëpp merci merci voilà donc du ñu def lu dul jëlaat keneen ndax ñuy wootee ndeysaan saan nañu salaamaaleykum. allo salaamaaleykum. oui maaleykum salaam. waaw. Euh, d' accord après nga rappelé waat <laughs> Paa Cissé dina la seetal woote waatal 88 628 04 14. voilà ñi bëgg a seet euh, Safi na ngi woote 88 628 04 14 gisaane yi ñoom dañu demoon tabaski ji moo tax ndeysaan ñu xaw a jaaxle tuuti salaamaaleykum. salaamaaleykum salaam. ñu ngi deuxième homme à participer ñu ngi lay nuyu ñu ngi lay fay bu baax. allo. ñu ngi lay fay bu baax ñu ngi lay déglu. yaa ngi direct ñu ngi lay déglu. Euh, waaw tata mhm. yow yaay ñaareelu góor bu dugg nag. ñu ngi lay déglu macha mhm. <laughs> nga wax jàmm rek. yaay ñaareelu góor bu dugg. vraiment émission bu am solo. absolument xam ni kii tataan man xaw ma waaw mm-hmm. loolu mm-hmm. tataan ñi mu dal ñi mu dal fii Sénégal bari na de. Mm-hmm. dal ci Sénégal on ne peut pas les compter très nombreux. mais mais vraiment yow dañ lay xamal ni que vous êtes une de fer vous êtes une battante. absolument vous êtes une idole une Sénégal. que wax la ko que bañ la koo wax. ku la xool ku la xool référence lay xoolee. donc góor googu ñu ngi koy ñaan. di ko xamal ni que. nit mënoo am. sa doom mënoo ko am mënoo mhm. am mhm. si àdduna mënul mhm. nekk sa doom bi nga jur nekk te moom leer na ko ni moom moo jur xale bi donc ñu ngi lay ñu ngi lay encouragé di encouragé yow dañ lay félicité di encouragé sa doom bii door a door di la ñaanal yow sa projet yi nga mëbët yëpp muy président de la république nga nga nga nga weesu ci tollu foofu ndeysaan ndeysaan da ngeen baax vraiment yow moom idole nga référence nga fii Sénégal da ngeen baax da ngeen baax ndeysaan merci merci d'avoir participé merci d'avoir participé émission dañ koy dem ba 19h donc je vais arrêter à 19h voilà donc sama caméraman ñi ngi xuli seen bët <laughs> trouvé leen beneen solution pour pour seetloo leen affaire bi ñëpp koy jàppee mais da ngay dem de nee naa leen mun naa def 24 heures d'émission bu leen ma xeex bi dama koy xeex. billaahi xeex bi dama koy xeex mun naa dem ba 24 heures man man man moom dama résistante quoi kon du ma def lu dul euh, euh, absenté une seconde. absenté une seconde dellu si waat damay absenté une seconde dellu si waat def moom dama koy xeex ñu ngi def lu dul euh, jégalu tuuti rek ça fait depuis quatorze heures ñu ngi def émission bi mais comme que ñëpp bëgg a wax ñemewu ma arrêté émission bi dama leen di bàyyi rek. ku si nekk wax parce que soo amee lu la naqari soo waxee rek da ngay jiif et ça dama koy may ñi nga xam ne dañu nekk dans une situation pareille toutes les femmes victimes d'hommes waaw pas seulement les recherches de paternité mais il y a la violence psychologique les violences euh, faites aux femmes loolu moo tax ñu ma ubbi waxtaan bi loolu moo tax ma ubbi waxtaan bi et sans complexe porter le combat pour que jigéen ñi mën a à leur tour joxaat beneen mouchoir pour que jigéen ñi à mën a ñeme ndax suñu nee waa kan mooy Ndella Madior ñëpp xam nañ kuy Ndella Madior ñu ne ah Ndella Madior kon moom tamit am na problème bu mel nii kon kay moom ñun tamit day tax gars yi après dañuy décomplexé ñeme oser en parler waaw man nag man damaa mën a xeex. dégg naa joow yépp ne dafa pànk c'est pas amul solo xeex bi dama koy xeex patienté naa léegi 27 ans ku muñ 27 ans di xa di permettre nit ki pour mu dellu ci xelam nga bëgg sa position dama lay dóor dama lay dóor si dóor Sada Kane laa naa nekk nii nag Sada Kane am na dans toutes les familles donc finalement góor bu saay saay Sada Kane lañ lay tuddee. góor bu saay saay Sénégal Sada Kane léegi-léegi nañ dundee yow Sada Kane la kii Sada Kane la diw Sada la du noonu comme que noonu la ko bëggee rek ñu defe ko noonu salaamaaleykum salaamaaleykum. maaleykum salaam. mbokki fan ak fay woote. Dakar très bien ça va très bien. yëkkatil kàddu bi ñu dégg la. li nga wax dafa am sens dafa am solo. ndeysaan. voilà parce que li la li la dal. Mhm. dafa dal sama tante. ndeysaan. si ki ngay wax. ci ki may wax Sadaka. waaw mhm. waaw. Mhm. ba pare il en de vingt. doom ji elle a presque trente ou trente deux ans maintenant. c'est pas possible góor la wala jigéen. jigéen. ndeysaan. elle est là. ndeysaan yaayam dafa doon liggéey wala di nga xamante ne feneen. yaay ji dafay liggéey. dafa doon liggéey si kër ga. non ok da nga xamante feneen quoi. da nga xamante feneen voilà. ndeysaan. moo tax bi ma ko dégloo juste après rek si la sama xel dem si. Mhm. Sall kan kay moom saay-saay la daf na ko ñu bëri de daf na ko jigéen ñu bari voilà. ndeysaan mhm. ndeysaan ndeysaan. yàlla dañ ko xeex yàlla yàlla ba sa tool. <laughs> dañ koy xeexandoo rek dégg billaay dañ koy xeexandoo fenn rek lañ koy xeexee assemblée nationale lañ koy xeexee. incha allah voilà su ko defee problème bi rek réglé ndeysaan. merci d'avoir participé nekk bu baax ndeysaan nekk bu baax kon am da ndeysaan ndeysaan ñu ngi def la du jëlaat keneen. Sada Kane daal def na victime yu bëri Ndella Madior kenn du ko tooñ ku may tooñ kan moo may tooñ waaye ku may tooñ ku ma tooñ day yàqu de lu tax nga may tooñ <laughs> voilà donc euh, vraiment euh, émission bi daw na yaram ndeysaan madame du commissaire mi ngi may ne bravo bravo Ndella voilà c'est très fort ndeysaan y a beaucoup de femmes qui apprécient. Mm. alhamdulilah am na balaa may tàmbali émission bi nag ñu bari ne woon ne ma buy wax ma ne leen dangeen ma xamul xeex bi dama koy xeex décidé naa ko ba pare Macky Sall su ko réglé wulee man maa koy réglé salaamaaleykum. maaleykum salaam. troisième homme qui ñu ngi lay ñu ngi lay dalal ak jàmm. Euh, waaw di di la wax ni di courage quoi parce que affaire bu taw la yaram trop. ndeysaan. waaw xam na nag euh, Sénégal yi xam ne yow vraiment ku brave nga ku jàmbaar nga. xam nga nga mën ko jëfee day doon vraiment. Mhm. mais dañ la war a bon def la kenn quoi parce que yow moom kenn tegu la ci dara quoi. ndeysaan waaw. en tout cas kontaan naa si yow daal maa ngi lay a suivre ni quoi mais lii dafa taw yaram trop quoi. ndeysaan ndeysaan ndeysaan. ok salaamaaleykum. ndeysaan ndeysaan am na ñoo xam ne mënuñu ko supporter. mais njëriñ ñun de giif nañu man de giif naa. billahi amoon na ay temps yoo xam ne nag mënu ma woon supporter affaire bi dama doon jooy mu giif naa eh, giif naa ba ci si reetaan léegi salaamaaleykum. allo salaamaaleykum. comment allez-vous. ça waaw comment ça va. ça lay déglu. waaw waaw. waaw Tata lay encouragé ci initiative bi nga jël. déjà. jigéen ñu bari bu ñu mën a di ñëw. pour góor ñu bari mhm. ngi gis mhm. seen biir kër yi boo leen gisee ñu ñuy seen njaboot teg leen fitna. ñu mhm. mais père modèle bu ñu génnee ci bi ci baax nekk dara jigéen ñu bari dañoo a génn a jigéen ñi parce que ñu doom après ñu surtout dafa métti di toog yow doo am amoo baay wala sa baay reconnaître la te xale bi deful dara xale bi deful dara mais saara mi yàgg naa di dégg ay ay vidéo te franchement ni ma ko gisee yow la rek moo xam ne tax mu def

li nga wax rek moom lay nit yi di laajte c'est tout donc euh, su ko defee ñu jël keneen kiy woote salaamaaleykum salaamaaleykum allo salaamaaleykum. na ngeen def. jàmm rek kay. na ngeen def. jàmm rek kay. na ngeen def. jàmm rek kay. voilà di di di di di di kontaan bu baax ci ci ci émission bi. ndeysaan. le remercier également voilà di kontaan bu baax a baax a baax mais également euh, di le remercier. Mm-hmm. remercier parce que li nga def courage bi. Mm-hmm. courage bi nga am def ko. Mm-hmm. tey jii. <laughs> waaye dañuy gis ñoo xamante